sell am toppatoo jëmee ci xale yi wala ngeen bëgg seen doom yi jàng kalamay français arabe ba ci anglais Al Azim Academy am nañ fa ay jàngalekat yu xarañ lool am expérience ci wàllum jàng ak jàngale njàngum alxuraanul karim gi day ànd ak njàngum fiq ak lépp lu jëm ci wàllum diine njàng mu wér ànd ak yar xale bi ci àddina ci daaray internat bu am kaaraange set xale yi di dëkk ci ay chambre climatisée ay lal yu confortable di leen fóotal fóot mu set boole ci ñuy def tàggat yaram yéen ñi bëgg seen doom yi jàng alxuraanul karim ci vacances yi Al Azim day organiser deux mois cours de vacances ci mois d'août ak septembre bu la neexee jël benn weer wala ñaari weer yépp ci njàngum alxuraanul karim wala langue yi moo xam anglais la wala français yéen yi nekk ci diaspora bi bëgg indi fii seen doom ci Sénégal ngeen bëgg ñu maîtriser français wala anglais laataa ñuy dugg école Al Azim Academy ñoo ci mën jàngal xale bi langue yi bañ maîtriser ko jàngal lépp lu jëm ci xarala yi ñëw leen gaaw inscrire seen doom yi ndax nombre de places yi dañ ko limité 15 élèves rek la ñuy def ci classe bu ne ndax bëgg enseignement di njàng mi nekk njàngum qualité ñëw leen gaaw Alazim Academy mi ngi ci Sacré Cœur 3 immeuble 9496 jokkool ak ñoom ci 77 778 25 25 bu la neexee nga bàyyi leen ci message par WhatsApp wala 33 822 53 50 sëñ si Abdou mi nga xam ne mu nekk ci bopp bi di soññ mboolem fu turandoo sëñ Abdul Xaadir nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñu bokk waajal bu baax suñu bisub turandoo bi kenn ku nekk fa nga daan bindoo selil ba fa nekk nga dellu yeesal mbind ma te joxe fa sàddiya ngir waajal bis bi bu ko defee selil bi nga xam ne moo nekk diggante Touba ak Mbacké ñu ngi leen di soññ moom ci liggéey yi nga xam ne moom lañ daan taxawee tàmbalee ko ci mbale mi nga xam ne moo la ñu woote ajjuma le 22 bu ñu ñu ñëpp ñu bokk rajo fii ci gi ngir ànd ko bokki talibé yi waajtaayu màggal gi it mboolem nga xam ne turandoo chef de ñoo ko daan taxawee ci biir kër gi dara soppiku ca tàmbalee ko ca liggéey bi nga xam ne mooy jiitu màggal gi ba ci màggal ga ñun ñëpp ñu bokk daje ci kër Serigne Moutala Mbacké moom Cheikhul Khadim wéyal fa liggéey bi ñu daan def ci jàng alxuraan ak xasida yéen doo ko fanaane ko def ko addee Cheikh Abdoul Khadir ñuy sukkandiku ci ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Amadou Moustapha joxe ñu bàyyi ko xel ci ni nga ko daan waajalee fu turandoo Cheikh Abdoul Khadir nekk mu jàng kaamilu alxuraan def ko addee Cheikh loolu nag benn kaamil la tàmbalee waaye lu waay man ci limub alxuraan du doy na ko def ñu def ko addiyee Cheikh Abdoul Khadir te lim bi bu ñu déggee kër sëñ ñu déggal ko nombre de place ko Al Azim Academy di école bu ñu leen ubbil ci Dakar Sacré Cœur 3 di jàngale alxuraanul karim ba ngeen mokkal ko ci njàngin wu leer te sell yéen yi yor seeni doom nekk ca bitim réew bëgg ñu ñëw fii ci Sénégal jàng alxuraanul karim ci bërëb bu am kaaraange set te sell am toppatoo jëmee ci xale yi wala ngeen bëgg seen doom yi jàng kalamay français arabe ba ci anglais Al Azim Academy am nañ fa ay jàngalekat yu xarañ lool am expérience ci wàllum jàng ak jàngale njàngum alxuraan alxuraanul karim day ànd ak njàngum fiq ak lépp lu jëm ci wàllum diine njàng mu wér ànd ak yar xale bi ci àddina ci daaray internat bu am kaaraange set xale yi di dëkk ci ay chambre climatisée ay lal yu confortable di leen fóotal fóot mu set boole ci ñuy def tàggat yaram yéen ñi bëgg seen doom yi jàng alxuraanul karim ci vacances yi Al Azim Academy day organiser deux mois cours de vacances ci mois d'août ak septembre bu leen neexee jël benn weer wala ñaari weer yépp ci njàngum alxuraanul karim wala langue yi moo xam anglais la wala français yéen ñi nekk ci diaspora bi bëgg indi fii seen doom ci Sénégal ngeen bëgg ñu maîtriser français wala anglais laataa ñuy dugg école Al Azim Academy ñoo ci mën jàngal xale bi langue yi bañ maîtriser ko am nañ fa aussi salle informatique di leen jàngal lépp lu jëm ci xarale yi ñëw leen gaaw inscrire seen doom yi ndax nombre de places yi dañ ko limité 15 élèves rek la ñuy def ci classe bu ne ndax bëgg enseignement di njàng mi nekk njàngum qualité ñëw ci Sacré Cœur 3 immeuble 9496 jokkool ak ñoom ci 77 778 25 25 bu la neexee nga bàyyi leen ci message par WhatsApp wala 33 822 53 53 ñëw leen gaaw ndax nombre de places yi dañ ko limité. Al Azim Academy di école bu leen ubbil ci Dakar Sacré Cœur 3 di jàngale alxuraanul karim ba ngeen mokkal ko ci njàngin wu leer te sell yéen yi yor seeni doom nekk ca bitim réew bëgg ñu ñëw fii ci Sénégal jàng alxuraanul karim ci bërëb bu am kaaraange set te sell am toppatoo jëmee ci xale yi wala ngeen bëgg seen doom yi jàng kalamay français arabe ba ci anglais Al Azim Academy am nañ fa ay jàngalekat yu xarañ lool am expérience ci wàllum jàng ak jàngale njàngum alxuraan alquraanul karim mag ah, sëriñ Sidi Mbacke mii nga xam ne mooy suñ jëwrin ah sëriñ Moustapha ñu ngi lay ñaan gudd tam wér ndax nit la koo xam ne ñu ngi déglu ñëpp xeebut xelam kenn te du sonn ba soppiku kon nag ñu ko ñaanalal bu baax a baax ndam lu ci daa am yal na ci am ren lu ko ëpp ci barkeb sëriñ du Khadir bis baa ngi noonu mooy bis suñu jàmbaar ja ka nga xam ni moo daa tudd doom yi du jullee ji néew yi di fay ordonnance yi wuuf njaboot gi kenn juyut xanaa dégg ngeen la ma waxoon seen jëli gànnaar ba ko joxe ñaari junni ni ko kuñ naan maram Diouf moo ma ko jox ma nga ñukki ne dafa ragal bàmmeel mun ko na dalal xelam jukkee naa ko fa kookoy Cheikh Abdou Khadir ilimaan yi teg ba léegi bi mu fi nekkee ilimaan la bi mu fi jógee ilimaan la ba léegi mi ngi ci penku jumaa ji lislaam jëmu ko Sénégal yebul sëñ Abdou Khadir ku mu jur yar na la teg na leen ci yoon ku ñëw ci bis Cheikh Abdou Khadir alxuraan moo lay fay ak julli ak lay kar fay la bis baa ngoog le premier la bu kenn manqué ñu xam ne nag baax bi ci guddi gi xaadim gi moo fay fanaanee jàng ba bët set na ñëpp ñëw bi Cheikh Abdou Khadir ku ci ween ci lu baax dootoo nëbbu. day ànd ak njàngum fiq ak lépp lu jëm ci wàllum diine njàng mu wér ànd ak yar xale bi ci àddina ci daaray internat bu am kaaraange set xale yi di dëkk ci ay chambre climatisée ay lal yu confortable di leen fóotal fóot mu set boole ci ñuy def tàggat yaram yéen yi bëgg seen doom yi jàng alxuraanul karim ci vacances yi Al Azim Academy day organiser deux mois cours de vacances ci mois d'août ak septembre bu leen neexee jël weer wala ñaari weer yépp ci njàngum alxuraanul karim wala langue yi moo xam anglais la wala français yéen ñi nekk ci diaspora bi bëgg indi fii seen doom ci Sénégal ngeen bëgg ñu maîtriser français wala anglais laataa ñuy dugg école Al Azim Academy ñoo ci mën jàngal xale bi langue yi bañ maîtriser ko am nañ fa aussi salle informatique di leen jàngal lép lu jëm ci xarale yi ñëw leen gaaw inscrire seen doom yi ndax nombre de places yi bu ne ndax bëgg enseignement suñu ilimaan qualité ñëw leen gaaw Al Azim Academy mi ngi ci Sacré Cœur 3 immeuble 9496 xam ngeen ni ñoo ngi fii 77 778 25 25 bu la neexee bàyyi leen ci message par WhatsApp wala 33 822 53 53 ñëw leen gaaw ndax nombre de places yi dañ ko limité Al Azim Academy dem na ca Cheikh Mouhamadul Muntaha mi nga xam ne mooy Serigne Touba di Cheikh Abdou Khadir ci moom di Cheikh Mouhamadul Bachir ci moom laaj ko ndigal mu jox ko ndigal ci bis bii mu waxoo mu teg ko ci loxol sëñ Moustapha moom Cheikh Abdou Khadir mii toog nag rakkam ju baax ji nu toog war leen a fàttali bi Cheikh Abdou Khadir bi nga xam ni altine le premier août incha bi di njëlti fan ci weeru tam xarit Cheikh Abdou Khadir nag kenn du leen ko fàttali kenn fàttewu ko waaye ñu di leen ko soññi mooy jaamukatub yàlla ba xanaa dégg ngeen ministre Serigne Lamine Diop la mu waxoon ci moom ne booy dox ci àll ba penku réer la boo séenee Cheikh Abdou Khadir kabaral mooy penku. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nii ñu fi daa toogee rek. di wax wax ji nu daa wax. ci bisub ku tedd kii nga xam ne. mooy Cheikh Abdoul Khadir Mbacké. imaamul murs imaamul imaamul muridin wa taqiyuhu وحافظوهم وورعهم ñuy toog ngir bis bii nga xam ne moo dellu siwaat ñu di koy yëgle di ko fàttali Serigne Moustapha dana jël kàddu jëmmal woote bi ni mu war a taxawee ñu xam ne jëmm ji moom nga xam ne moom lañuy ñuy wooteel mooy ittaqullaa xaqqa tuqaatihi واتقوا الله لعلكم تفلحون yaa ayyuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi yi nag mooy Cheikh Abdul Qadir ndax foo ko séen mu waaxu jëm njëriñul bindeef yi la wala ak topp yàlla mooy jëm ci sëñ Tuubaa rek te it gann ay bis bu mas a jënal siyaare ji way juróom wu tedd woowu amul ci lim nekk ci kaw suuf lépp mm-hmm. kon nag bisam bu agsee ñëpp danañu ko bàyyi xel danañu ko séenu danañu ko fàttaliku kon nag ñu fàttaliku ko nañ ko daa fàttalikoo ndax moom mooy jëmmi sëñ Tuubaa jéem waxoon ci boppam ne lam an xu maalam yu fi de kenn musoo ko seen mu jëm ci lu dul lu am njëriñ dem di xettali yi ku fi bàyyi ko ko feeñ ci jamono mu dem di ko joxe aw tur mbaa muy waaxu jëm ci jëmmi barabub sëñ Tuubaa bi mbaa muy waaxu di jëm ci bindéef yi ngir xettali si leen mbaa muy waaxu ngir jëm ci topp yàlla mooy sa topp sëñ Tuubaa kon nag loolu mooy la max nu maalam yi fi jë sëñ Tuubaa ci boppam kon loolu agsi na ci moom kon duñ ko guddal dañuy jox Cheikh Mouhamadul Moustapha mu joxe ndigal li na mu ko daa joxe yàlla nañ ko teewaat na ngeen déwén ak jàmm ak sëñ Tuubaa te yàlla bàyyi leen fi bàyyi seen ginnaaw. Ah. yéen mbokki jullit yi ñuy seetaan yëpp ak yéen mbokki jullit yi teew ci jataay bii yëpp ñi ngi leen di nuyu ci turu sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo toogee ci jataay bi sëñ Abdou Khadre Mbacke di leen nuyu ci aw turam di leen dalal jàmm ci aw turam di leen jottaliit nuyoo ci aw ci aw turam di leen jottali nuyoo xalifa général di murit ndax jataay bii. biñ ko laata amal nii demal na fa boppam ba yëglu ni ab taalibe bi war a def bañ jox ko ndigal ci bis bi nañ ko màggal nañ ko war a màggale ba jot ko ci ndigal ci ci xalifa général de murit muy sëriñ Muntaxa ayyadahullah wa nasarahu ginnaaw bu mu ci jotee ndigal nag la wax ne nañ jot li ci ndi ci ci aw turam bokk jullit yépp sëriñ ba noon ca Jolof <laughs> ne ko ñëwal jébbalu ci bii danaa ko def noonu la sëriñ la sëriñ bi mel kon yàlla na nu yàlla dimbali <laughs> taasuñ ci barkeem ñi ngi ciy woo bokk jullit yëpp bokkuñu me bàyyiwuñ menn mbokk mm-hmm. bàyyiwuñ benn ci tarixa suufi yi mm-hmm. ñëpp lañ woo mm-hmm. wooy ci it jànkati alxuraan yi bàyyiwuñ kenn ndax alxuraan a ko gënoon a ñor ci lépp alxuraan daf ko bëggoon di ko déglu di ko firi nga xam ne firi yu bari jàppe naa ko ci moom danaa ci indi sax yenn yi rek teew sama xel nii rek ana boo xam ne dañuy dañuy dañuy teg alxuraan bi nasullaaha fa nasiyahum mu daal ne nasullaaha fa nasiyahum fa tarakahum yàlla du fàtte noonu la mu leer la la koy firee fàtte nañ yàlla yàlla bàyyi leen ndax yàlla du fàtte yàlla nag day def boo ko fàttee mu bàyyi la mm. fekkee naa yit mun a ina ina arsalna ina arsalna sayatin xalal kafirin te ussuhumoo assan mu ne te ussuhumoo mooy kayitloo daal ne axraahu wa xamala axraahu fiihi wa xamalahu alayhi mooy mooy yàlla mooy mooy fiir xiir gim la ci xiir waaye loolu mooy kayitloo seytaane day ay gaayam da leen di jël di leen kayitloo di leen ñu caaxaan loo rek ñu ñu ñu ñu ñu ñuy luñ ko indil bu subaa ñu indilaat leen dolli ca mu ne ta ussuhum boo ko doon firi xeer la ko téere yi firee waaye yow dee ko firee kayit loo ba <laughs> lu mu la naxee tey bu subaa mu naxewaat la leen li ca lam la naxe woon nee na loolu la seytaane def ñaan ak moom dégg dégg fekkee naa yéen mu ne mus jal mu ne alxuraan mu ne mu ne loolu wax na ko dane eh, mus jal ak ak ak rek moo am mooy daanaka li ma doon wax ci julli gi mu ne mus jal mooy luñ tënk mooy luñ boyal luñ joyal lañ koy firee ci woyof yet mooy luñ tënk mu am na yoo xam ne alxuraan boo ko indee mus jàll la ñëpp la ci yemale jullit ak yéefar mooy lu mel ni ne hal jasaa'u linsaani illa linsaani lool mus jàll la hmm. waaye am na yoo xam ne nag da koo tënk jullit yi képp la jox ndigal loola sëñu leen a génn loolu mooy muqayyad <laughs> noonu la daa firi alxuraan firi yu leer yoo xam ne lu mu ci noppi bu noppee danga nga xam lu mu doon kon nag alxuraan jooju mu fonkoon hmm. addis yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ni mu ko bëggee oon alxuraan ji daara fu daara ne ñu ngi lay ñaan nga jàngal ko alxuraan te sellal ko fu daara ne loo ci mën a teg ci salaatu ala nabi fii ba bis ba muy biir réew mi muy bitim réew mi ku ne na daal tàmbali njàng mi boo déggee uh, woote bi rek wëlëri yëpp nag ñu ngi leen di woo di woo taalibe bi yëpp yi ci biir réew mi ak yi ne ci bitim réew di ko yëgal waa commune bi liñ ci war a def lépp xam nañ ko nañ ko def ko yëgal di soññi dongay muritu yi ñooñu mooy ñooñu ñi nga xam ne ñoom laa war a soññ li ci ñi ci des da leen da ngeen leen soññ. yal na yàlla def lu ci waay yëngu. yal na ko yàlla def muy jëf juñ nangu. lépp lu waay yëngu ci moom te defee ko positif nag bay ba nga rafet ci njort ci ne mën naa nekk xamalan xaalisan maqboolan indallaahi yal na ko yàlla yal na ko yàlla xéewe ñun ñëpp nag. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nuyu di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 bu ko defee ñu jublu rek ci li nga xam ne mooy programme bi di commencé kàddu yi nag di jiital ab nuyoo ci alxalifatul am li tariqatul muridiya Cheikh Mamadul Muntaqa di ko ñaanal bu baax suñu boroom guddal aw fanam ba naal yi nga xam ni naanal na ko maam ju baax ja suñu boroom kattanal ko ba mu eggale ko ba naal yeneen naali boppam ba yeggale ko yàlla na ko suñu boroom def di ñaanal mbooleem xalifa généraux yi fi nekk yépp ni ki noonu tamit di ñaanal xalifa suñu Abdul Xaadir suñu seex di ko ñaanal bu baax suñu boroom guddal aw fanam ni ki doon tamit di nuyu délégation bu am solo bi nga xamante ni ñoo ko teewal fi tey ci bis bi ci Sëriñ Sidi Mbàkke di di ko ñaanal moom bu baax mboog délégation bi mu àndal yépp suñu boroom guddal seen fanta yokk seen taxawaay bu ko defee balaa ñoo commencé rek incha allah dañuy ubbee ay ayaat ci alquranul karim ngir ubbee ko jotaay bi bu ko defee ki ñuy jàngal aayat yooyu nag mooy sëriñ Saalih Mbàkke doom ci soxna Marem Buso moom sëriñ Omar soxna soxna Marem moom sëriñ Omar moom sëriñ Njaaña kon sëriñ Saalih moomu moo ñuy jàngal alquran bi bu ko defee bu ñu noppee ñu doog dugg ci jëmmi programme bi sëriñ Saalih taxabal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم sadaqallahul aziim sadaqallahul aziim jërëjëf sëriñ Saalih ci euh, alquran ju neex ju sell jooju ngay jàngal yàlla yàlla sotti barkeb alquran ci yow bu ko defee kon dañuy jox sëriñ Chouaïb bu Juuf rek mu andil ñu waxtaanu gàtt ci diggante relation nekkoon ci diggante ak jëflante bu rafet bi nga xam ni moo doxoon ci diggante sëñ Abdul Xaadir ak sëriñ Omar bu defee waxtaan def mel ni dañ ko séddale woon ci ñaari pàcc sëñ Ahmadou Ndiaye ngiraan daf mel ni moo waroon a def beneen partie waxtaan waaye daf mel ni ak seegul bu ko defee dañ jox suñu champs bu juuf nii mu ñëwal ci diggante boobu bu defee nañ ko xool déglu bisimilah.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 di sant yàlla ci jàtte bu sell bi nga xam ne mosul <coughs> borom tubaab di xamal na ginaaw bi ndigal lu jógee fa mu war a jógee ci Cheikh Sidil Mokhtar. <laughs> jaar fa war a jaar sëñ Cheikh Mbacke. ci mag ñi bokkoon ko dundal te ko xamoon Cheikh xamoon nga ko ci dundal ak bokk Cheikh Abdoul Khader moom bind boobu ko jàng ci ak dundam mooy fonk mbokkam Cheikh Abdoul Khader ku fonkoon ay bokkam la yemut ci fonk leen waaye da leen daan seeti di ko dundal di leen dimbali. fi na kenn mësta toog fa mbokkam fi kanamam sikkal darab mbokkam moom Cheikh Abdoul Mbacke doon ko mësta toog ci kanamam di wax di wax ne mbakki dimbu bokkut ci mam haram mu ne ko faray ñippi man de ca laa bokk <laughs> moom Cheikh Abdoul Khadir nga xam ne xool ni mu protéger mbakki dimbu wane ko man ca bokk te Cheikh Abdoul Khadir fu mu rek riis na waaye gis nga ni mu daal di teere teesal euh, fexe ba kooku du am porox ndoll bu mën a jaar ba jëm mbakki dimbo gis nga mbakki dimbo nga xam ne mooy mam maharam waaye ku leen ci bëgg a génne ci kanamam nag wax ne mbakki dimbo bokkut ci mam maharam si boo xam ne ko fara bokku rek kon mook Cheikh Omar mii nu fàttaliku tey daje ci ëtt bu sell bi ñoom ñaar ñoo bokk mbakki dimbo Cheikh Abdul Xadir di mbokkum Sëñ Omar ñu bokk menn maam di maam Balla Aysa mbakki mi nga xam ne mooy caatub maam Maharam xam ngeen ni maam la moo mujj ci doomi maam Maharam yi mooy seet barke sax di ëpp maam rek ngay dégg daa waaye moom moom caatub maam te caat ñaari moom la barke bi ëpp lu muy topp ndax mooy mujj ca ndab la maam Balla moo mujj ci maam Maharam Mbàkke moom maam Balla ma balay sama moom nag mooy waajuru ma Abdou Khadir mooy taaw ma Abdou Khadir juru sëñ Mbàkke soxna sëñ Mbàkke soxna muy waajuru sëñ Omar mi tax nu daje ci barab bii di ko fàttaliku waaye ma balay sa moom it maam la ci Cheikh Abdou Khadir ndax sëñ Mbàkke moo rand sali Cheikhul Khadim <laughs> Cheikh Abdou waaye ma Abdou Khadir yi mi maami sëñ Omar ay sabal la mi mbokkal ndey ak baay moom lañ jox sëñ moor Dieng mu am ci kanni ak soxna Mbacke ak soxna Ëstu Mbacke soxna Ëstu Mbacke yi jox ko sëñ Mor Bassine Ndiaye moom ci sëñ ay Ndiaye soxna Mbacke ñu yot ko ma Abdou Khadir Ba moom Baara Sadio mu am ci ndeyi sëñ Ndiogo ndeyi sëñ Mat Dem ak ndeyi sëñ Modou Bousso bi nekkoon imam Taïf ak sëñ Mor soxna Ba xam ne mooy seen càmmiñ Cheikh Abdoul Khadir ndax ay sa baat la àndasali Cheikhul Khadim maami Cheikh Abdoul Khadir mi ay sa baat la mi bokkal ndey ak baay ne maam ma Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir te ay sa baat ñoo bokk maam Balla ay mi caatu maam Haram Mbakke kon Cheikh moom bokk na te moog Cheikh Abdoul Khadir ay bokk yu jege lañ loolu li ñu koy xam-xam xam-xam ñoom ñaar dañ doon dundal bokk googu ñoom ñaar muy Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ak Cheikh Omar Cheikh Omar ñi dëkk Mbacké te xam ko xamoon nañ ne nit ku baax la ku tegu ci yoon la woon te jub dëkke woon jaamu yàlla moom Cheikh Omar sama dégg sax mu wax ne kaamil bi mu jànge alxuraan Cheikh Ahmadou Bamba ko ko jox ci loxol boppam loolu Cheikh Omar laa dégg mu nettali ko daa di wax ne kaamil ba ma njëkk a mam maam Balla Jatara moo ko bindaloo woon Seexul Xadiim bi mu koy bindal sëñ Tuubaa nag mage na moo tax keroog ba mu ko bindee ñu indil kaamil ba sëñ Tuubaa di ko topp benn yàq lañ gis ca kaamil ba te mooy nihmal abdu nihma jarabaa yi mu mambalay mu mbale jatara sëñ Tuubaa daal wax ne moom de am na xadar ci alxuraan bu ko gisee dana ko bindaat tag maga mayu ko ko kaamil boobee ci la xool sëñ Omar la mujjoon nekk bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi bi sëñ Tuubaa ñibbisee ci géej gi la laaj ana kaamil ba ñu ne ko ma nga ak sëñ Omar Mbakke moom sëñ Mbakke soxna sëñ Tuubaa yëkkati kaamilu alxuraan jox ko danañ ko yot kaamil booba kaamil bi ku sëñ Tuubaa jox nag ca la mokkal alxuraan moom Cheikh Omar <laughs> moo tax ku gis mi ci biir da xam ne Cheikh Omar mokkal na alxuraan te fooyut boppam kon dundal na ak bokk moog Cheikh Abdul Xaadar dajuy mel nii nag dajuy mat di fàttaliku dana mat di bari la ndax dana tax nu xam li mag ñi bokkoon ak niñ dun dundali seenu bokk ndax kat bari na bokk yàqoo lool de te la leen yàq mooy duñ daje te duñ waxtaan moo tax ay bokk dañuy daje di waxtaan di dundal li leen boole gis nga fi ne bari na ku ñëw ci jataay bi boo demee xamutoon lu Cheikh Abdou Khadre bokk ak sëñ Omar Mbacké waaye mën nga koo laajoon nit te du ko xam waaye gis nga bisu mel ki ci ñëw dana daal di xam sëñ Omar moom li mu bokk ak Cheikh kon su bëggoon a wax dara ci Cheikh Omar dana feree ne dana xam ne ki muy wax dara mi ngi mel ni kon Cheikh Abdoul Khadir Mbacké la koy wax ndax ñoom ñaar ñoo bokk menn maam moo xam ne muy maam Balay sa bi nga xam ne mooy caatum sëñ maam Balay sa eh, te bokk ko Cheikhul Khadim fi ne léeg nga dégg ko naan sëñ Tuubaa amuti bokk Serigne Saliou nag nee ëpp naa wax sëñ Tuubaa nag na ku ne la la bokk ak yow nag sëñ Tuubaa am nay bokk te séddoon na ay bokkam. gis nga sëñ Tuubaa fayul bokkam yi de daana wax ne ku leen jëfal te munuñ laa fay ma fay la ku leen tooñ ma fayul la loolu doo di gaa yi ko waaye sëñ Tuubaa nee na bokk yi ku leen jëfal te munuñ laa fay ma fay la ku leen tooñ ma fayul leen bokk googu nag la sëñ Tuubaa seddoon moo tax mu def leen ni mu leen def Cheikh Abdoul Khadir mii nag daa fonkoon bokk moom fi ne fi ne Cheikh Abdou Khadre na ci xeet yi la daa xamale sant yi fi ne bu ma sax diw nu sant mu ne nanga mën a xanaa mbokkum diwa de bu ñu ko toppee <laughs> mbokkum diw lay doon Cheikh Abdou Khadre moom beneen beneen dimension la woon moom ci xaw bokk ak ak di ko lijjanti ak di ko dox xam ne mbokkam mu ñëw fa moom ni mu koy terale ak fi mu koy teg te fi ne fokk bokk sax da ko yóbboon ci mag ñi faatu woon te bokk moom da leen daan siyaar ji fi ne naaweel ak mm, maam soxla jaaraak eh, eh, Poroxaan ak yëpp barab yëpp Sëñ Abdu Xaadir dafa daan dem di siyaar ji dundal ak bokk kon moo sëñ Omar ki dundaloon nañu ak bokk ndax fi ne dundal ak bokk moo moo tax jati daji bi am fi ne fi bu bokk gi amoon nu ñu mel kon tey njabootug Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ñi moo te fekk si njabootug sëñ Omar daje bi rek war na noo jàngal ne Cheikh Omar ak sëñ Abdoul Khadir seen diggante rafetoon na ndax dundal nañ bokk gi Sëñ Xaadir xam Sëñ Omar Sëñ Omar xam ko Sëñ Xaadir yi fonk ko ngir bokk gi ñu bokk waaye Sëñ Omar it ab taalibe la woon ku wàccawoon boppam la ku dëkk Mbàkke rek xam nga ne Sëñ Omar Mbàkke ku baax la te man damay wax ne Sëñ Omar dama cee dama cee am ñaari ñaari taxawaay sëñ Mahmoud Sill mi ma tudd Sëñ Omar ay na jaayam sëñ Mahmoud Sill moo ma tudd moom bay sëñ Sill ca Touré Ndula te sëñ Omar mooy najaayam sëñ Omar ci sëñ Mahmoud laa xamee garaatam ndax sëñ Mahmoud daana tudd ci moom lu bari ci lu baax di seede ay jikko koy baax ci moom ba soxna Ndey Mbakki mi doon doomam sëñ Mahmoud Sill moo ko dencoon sama bay tudde na ko doom kon man ñaar taxawaay laa fi taxawee kon dama ñëw ci bisub sama sëriñ muy Cheikh Omar muy mbokkum sama sëriñ te dundal bokk ga ma dikkaat ci ngir jëmmi sëñ falu mi nga xam ne sama xarita te ku ma jàpp la ku ma bàyyi xel la fi ne li may doon séeréel séeréel séeréel ku ma ma wadd ndax bàmbaa fi ne dëgg ñaanu sëñ Tuubaa rekk fi ne de lu nit am sëñ bay te naa ne la ñàkk ki ñaan ci sëñ Tuubaa lay am sëñ Tuubaa limam bu ko yemaloon ci bokkam yi nun séeréel si dañuy ruuj baa ñuy sàmm sëñ Tuubaa limam bu ko séddoon ay bokkam moom lu torox la ñuy waaye la sëñ bay jaxate waxoon na dal sëñ Tuubaa defar nga say bokk defar aw jaambur ñépp jàkk nga jàpp sax jaambur defar nga say bokk defar aw jàmbur te nit mën naa baax ay bokkam bon nit mën naa bon ay bokkam baax sëñ baa mënoon naa fexe ba bokk yi rek mais ku baax baax nga waaye ni mu fexee ba maam Cerno Birahim baax maam Moor Jaara baax sëñ ma Sàmba baax fexe na ba sëñ Darou Assane Ndiaye baax sëñ ma Samba Diop Samb baax sëñ Omar Samb baax te ñooñu bokkuñu ak sëñ Tuubaa ñoo ñu bokkuñu ak sëñ baa dara boo doon ma askan duñ laaleeg sëñ bi. te cër yi leen sëñ Tuubaa tibbal fi ne sëñ Daaru Asan Njaay li may sant Njaay ba ko maam ci nu Biraam ne woon nañ wàccee mu lànk kon defar nay bokkam bokk yëpp baax nañ te jag Cheikh Amadou Bamba jàmbur it sedd na leen i cër Jóob day bokk ak Jóob Jóob nangul sëñ Tuubaa not Jóob boo demee Daaru Saam sëñ ma Samba Jóob Saam boo fa demee moom doo ngay dégg mooy su woon sëñ Tuubaa di boo demee daaru njaay koo fa woo njaay sëñ daaru san njaay njaay la sant te ba amoon nay bokk ñu mbokkal njaay moom nag moo ñëwoon ci sëñ Tuubaa moo tax njaay googu ngay dégg fii ne boo demee daaru njaay koo amu ne njaay kon baax googu netaral la Cheikh Amadou Bamba def loolu nag ca la wàllu Cheikh Abdou Khadir nit ku nit ku nit ku yéeme la woon te ñu meloon ci bokk yi xam di leen fajal ay xaajo ba noppi di lijjanti mbokk gi nga xam ne du nangu kenn xas mbokkam ci kanamam léeg nit ñëw sa kër reer sab reer xas sa mbokk del day am firi ne bari na nit ko xam ci nit ayib mbokk ma ko ko wax dafa am ko toog ci kanam sëñ Fallu na sëñ diw ak gaawuk julli si wàllu ko daa bañ dara rëcc ko ci de mu ne ko moom sax da xam naa mel ne ni wuta nag sëñ diw sàngam mi nga xam ne ku yeggoog julli si si wàllu ko daa bañ <laughs> da ko jox ak xam rek léegi nu muy def nga xam ne kenn du toog fi ñoom yàq si dara mbokk ñoo ne dangay baax loolu nit ñëw fi yow tudd sa mbokk wax ca dara nga ne ko xanaa yaa ci xamul waaye xam naa ci yeneen yoo xamul yaa ngi def ay di moo tax bokk yu bari féewaloo nañ te ay nit a dox seen diggante ba féewaloo leen waaye ba fi mag ñi nekkee amuñu woon koy xas ak bokk amuñu koy tas ak bokk dañ ko daan dundal te noonu nag noo ëppoon mag ñi ay moyen de si bi xëy na ko poog am na nuy oto waaye fi ni bu lii amut dun daje su ñàkk daje gin dun daje nag loolu tax gaa yi di poroxandoolu ci biir bokk yi ba yàq ci lu bari fëri na bari na bokk yi du tuddante aw nit a tax dun tuddante nit a leen wax la tax duñ tuddante waaye nii bokk yi def tey nii nu def sëñ sii di ni nii di doomi si Abdul Xaadir sëñ Fallu ni nii di doomi sëñ Omar léegi bu ma toogoon fi derab ci sëñ Fallu bu ma toogoon fi sëñ Fallu mii ba nga yàq derab sëñ sii ndax sëñ Siidi day daal di xam sëñ Fallou day daal di xam li señ Omar bokk si bu Kadir ba kon man dutuma am porox ndoolom man a wax dara sëñ Siidi wala bu ma waxee sëñ Siidi dara ba ma ko waxee dara sëñ bii dana fexe ba protéger ko loolu nag dalunu léegi noonu ko toog fi nit wax ci nit dara sa mbokk dara nga ànd ak moom loolu tax dere bokk yu bari dañu yàq lañ leen mag ñi nag wàggaroon nañ seeni bokk kenn du leen jëw kenn du toog fi ñoom jëw sa mbokk kenn du wax ci ñoom derub sa mbokk lu bon ko toog ci ñoom wax sa mbokk lu bon ñu défendre seeni mbokk moo tax Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ak mbokk di ko dund moom ni mu ko xamee woon yéeme te nam xamee woon noonu ko doon dundale Cheikh Omar noonu meloon ak moom ñu dund alaaxa bu rafet te alaaxa boobu ñu dundoon mu rafet lool moo daji daji yi mbokk gu féewaloo mënu ko suñ daje bii mbokk ko féewaloo mënu ko kon da nga ci dégg ne sëñ Omar ak Cheikh Abdoul Khadir Mbacké dundal nañ seenu bokk ba noppi bokk lu ñàkk bokk gi ñu bokk nag ñu di ko dundal ñoom ñaar biñ fi jógee nag bokk yi xam ne bokk googu moo war a dund moo tax Serigne Cheikh tànn bis boo xam ne dañ koy defal Cheikh Abdoul Khadir Mbacké di ko ci fàttaliku ñu tànn bokk yi mu bokkaloon mam ma haram di leen fekki lii damay xam ne daje bii tey Cheikh Abdoul Khadir Mbacké bég na ci ca àllaaxira waaye Cheikh Omar it bég na ci ca àllaaxira ndax daje bii kat nag ñu koy wan mag ñi ca àllaaxira ñu ngi ciy teg bët kon danañ xam ne pousse bi ñu bàyyi woon euh, réerut kon yi ñu def baax ne ni ñu defal sëñ Amar te defaloon nañ ko sëñ moo du yónni waxe sëñ bi xaajër demoon nañ fa bi ñuy waajal màggalu sëñ bi xaajër te sëñ moo du yónni sëñ Mbàkke soxna ko jur moom it lée lii sëñ Amar mbokk ak Cheikh Abdoul Xaadir la bokk ak Cheikh Abdoul Xaadir ndax Mbàkke soxna mooy way juróom kon nii nuy def di ko defal Cheikh Abdoul Xaadir di tànn bokkam yu sell yii di leen fekk dana dundal ak bokk dana tax nit ñi gën a xamaat bokk gi xamaatit liñ bokk bokk gi nag mi ngi réer fi nañu bari génn nañ leen ci mammaaram léeg-léeg ñu ne diw noo sant ñu ne mbàkke gaay laaj ba xam mbàkke koo bokk est gaay dañoo xam mbàkke piir ak mbàkke royal ma saa ko wax benn waay mu ne ndax piir daa ma mbàkke royal ma ko man xaw ma mbàkki piir ak royal mbàkke laa xam man léeg-léeg léeg nga ne laa sant ñu la mbàkke koo bokk moo tax damay wax ne ku ne war ngaa xam ni nga bokk ci ma maaram ndax dana tax nga sàmm ko dana taxit ku bëggoon a jóg ngir jam sab der nga am lu la defaandar fi ne ñu bari bokk nañ ci maam maharam waaye am nañu ci xamul nag nuñ bokk ci maam maharam fi ne léeg-léeg nga dijeg nit ci barab mu ne mbàkki nga ne mbàkki hmm, waaye du ngeen xam nu ngeen bokk loolu nag ku ko xamut doo mën a dund rek bokk Sidna Omar nee na war na ngeen xam ci bokk lu ngeen ko dundale bokk moom yéel yéel laaj dox ak wax bokk dañ koy dundal mënii su ko dundal nag te xamoo ko nit lu mu xamut nuñ koy dundal fi ne bu ñu xamutoon Cheikh Omar lu mu bokk ak Cheikh Abdoul Khadir Mbacke nuñ koy dundale te nettalaa léegi na la seen ñaari maam yi ñoo bokk ma maharam Cheikh Abdou Khadir daa maamu ci ay sa ball muy jigéen sëñ Omar mi maamu ci ma Abdou Khadir muy góor nga xam ne ñoom ñëpp ci maam la ay sa ca la ñuy dellu ñu bokk kook Cheikhul Khadim bokk googu ñu ko bokkoon nag ñoom dañ koo xamoon moom ñoom mag ngi di ko dundal te yeen ko doon dundal ñu leen ëppoon ay moyen noonu ñu am nañu appareil ku ne ci ñun war ngaa toog ba mu yàgg nga def ci sa appareil dara woo sa mbokk la ko dama gis nemmi ko waaye noonu aw xewayaam ñu daje di bokk bu xew amut duñu xam lu nu bokk kon nag a toog léegi nag si ne buñ toppee barke bi buñ toppee barke bi kenn du seeti kenn de ndax ku ne sëñ Tuubaa na la loo tooge ku ne sëñ Tuubaa defal na la ci bokk gi loo tooge léegi soo jàppee barke ba toog doo seeti kenn kenn na ca barkeem na du ma seeti kenn kañ la bokk giy dund dañuy bàyyi barke yi nag tey seetante tey dundal mag ñi ndax mag ñi bokk nu ñu ëppoone barke kenn ci ñun ñi doo am barke mukk ba Cheikh Cheikh Abdoul Khadir Mbacké mun loom barki Basiir Sëñ Omar te dañ daan fekkante Sëñ Abdou Khadir daan ñëw Mbàkke jaar fi Sëñ Omar Sëñ Omar jóg di fekk Sëñ Abdou Khadir te amuñu woon jot waaye léegi nag lu tax nun nu bëri jot ba noppi te duñ seetante da ngay toog fii ne ci sa barke kee toog fee ci barkeem kee toog fee na ci ne ci sa barke léegi nag bu gaa yi toppee barke yooyu kenn du seeti kenn de ndax fu ne fu ne Sëñ Tuubaa def na fa barke kenn ndax Sëñ Tuubaa xëyewut kenn gonte kenn kenn ku ne Sëñ def na ci barke daa ci xis sa boo xam ne sëñ ab sëñ bu Bousso moom sëñ Bakki Bousso dafa mas a def ab néeg néegu ñaari ban wax ko sëñ Fallu ne ko dama bëggoon nga jox ma lu ko senge sëñ Fallu ne ko doomi na jaay na ko day seey de wax ko sëñ Mor daj mu ko demal ca sëñ Muudu Maamun moom Daaru Salaam demal ca sëñ Muudu Maamun bi mu ko waxee sëñ Muudu Maamun ni sëñ Muudu Maamun meloon ci baax si Muudu Maamun woo Mor Ndaw mu ñëw mu ne ko jox ko la koy senge mu jox ko la koy senge la koy defar ba ci déwén sëñ baaxir bu soo am dara na léegi naa dem jukkal sëñ Mudu Maamun kat delloo ko xéewal gi ma defaloon bi ma agsee di ko wax sëñ Mudu Maamun mu ne ko tëddiwuma li ci de barkeb sëñ Tuubaa bee barkeb sëñ nun bu doon ci nun ñii da nga koy ree ni ko saa yaa dugg ci loo mënut xam nga ba ngay tabax ñaari néeg mënoo ko amoo loola senge doo ko am la ko senge kon dañ doon dundal bokk gi kon nag yàlla nu yàlla fayal mag ñooña te tas ñu ci seen barke noo ngi ñaanal Serigne Sidi yàlla na suñu borom defal la tawféex may la fan wu gudd wànd ak wér ba li nga bëgg yéene lëggeel Cheikh Abdoul Khadir sa waajur lépp yàlla su borom tabaraka wa taala def nga kàttan nga nga àggale ko ñaanal Serigne Fallou moom Cheikh Omar it lim yéene lëggéeyal Sëñ Omar yàlla na yàlla kattanal ko bam def ko ni mu ko bàggee noo ngi sant mbokk yi lépp ab séeréel nag moo doon fàttalanteeg yéen séeréel nag magie su ko xam ci biir tukkulóor mooy waxtaan. moom xam naa daa den xaw a jaaxal ma leen xaw na maa jaaxle ndax ay tukkulóor ma ne ci seen biir di waxtaane seen maam yi damay wax ne maam ma xaram moom ñaaram ma ko gën a xam Moustapha Ndiatta Mbay Ngiraan te Moustapha Ndiatta da koo xamoon ci baayam Modou Mati Saaxo mu xam ko ca moom Mbay Ngiraan sëñ Mor Mbay Siise lay la ne fa këram sëñ Mor Mbay Siise ko ko joxoon moo ko booleeg sëñ Moussa Ka sëñ Moussa ko téeréb càll bi man nag kenn ma ko joxoon maa dib séeréel di gëstu ba xam ko te fii nag askanu maam mari mi ko war nga koo xam xam ni nga bokk ndax buñ ko xamut yéex yi dana dana jaxasoo ndax ko ne da nga xas nit te fekk ngay kon séeréel bi moo doon fàttalanteeg yéen li ma wax fii nag ci seen maam ya bu ma ko waxoon ci pël yële naan fa soow kon nag neexal leen ma ca seen maam ya yalwaanu ma nag bu ma ko waxoon ci pël yii seen maam yi danaa ca naan soow ma wax ko ci seen maam yi nag wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf suñu champs bu juuf ci euh, waxtaan wu am solo woo nga xam ne andil nga ñu ko ci diggante sëñ Abdul Xaadir ak Serigne Omar Mbacke mu leeral wax dëgg yàlla ni relation bu boo xamante ni buñ daan dox la ñoom ñaar ñëpp. mu nekk relation boo xam ni li ko suuxatoon mooy ak mbokkoo akuk nawlonte mu junj ci ay yu bari yoo xamante ne nii xañ na waxtaan wi xañ na waxtu wee xat kon benn bu ci nekk wares na ja taxaw def ci jàngat ngir am solo goo xam ni am na ko solo mu mel ni leeral ni ne Sëriñ Abdul Xaadir wax dëgg yàlla ku fonkoon ak mbokk la koo xam ni daawut nangu fenn fu mu toog ñu fay suufeel wala di fay wax nag su dul noonu ci koo xam ni mbokkam la loolu di loo xam ni luñ mat jàngat la ci jamono bi ñu toll nga xam ni comme ni mu ko ni ko suñu soñ bu waxee léegi da gis jotaay boo xam ni sax dit dafay dit dafay toog di yàq koo xam ni ak mbokkam la nga xam ne day mel ni moom moo ko waroon défendre waaye day toog di ko di ko yàq loolu it di loo xam ni lu ñu war a lu ñu war a bàyyi xel la kon juñ na ay poy yu bare bari xaj na waxtaan waxtu wee xaj moo tax benn bëri duñ ci mën a taxawlu waaye ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom comme ni mu ko leeralee day nee na xaritu xaritu sëriñ la waaye ab taalibe la ci kër gi kon moom day mel ni bari na fi ay cër yoo xam ni benn bu ci nekk mi ngi koy sàmm duñ duñ ne it relation boo xam ne am na ko sëriñ Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy xalifab sëñ Omar di ko ñaanal moom it suñu boroom gën a guddal ab fanam gën a yokk taxawaayam kon bu ko defee ngir njëkkteel waxtu bi rek dañuy jox sëriñ euh, Ahmadou njaay Ngiraan ngir ne moom moo ñu war a defal waxtaan wi ci jëmmi sëriñ Omar moom moo ñu war a defal waxtaan wi nag ci jëmmi sëñ Omar ak ak dundinam fi mu jaar ak relation yi mu amoon ak kilifa yi fi newoon yépp bu ko defee kon dañuy jox sëñ Ahmed Ndiaye Ngiraan mu ñëwal ñu ci tomb boobu ci lu toll ci fanweeri minute rek allah. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di ñuy jiital ci ziar bi kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom dolli ko aar dolli ko sàmm dolli ko mag ñi bàyyee mu di ko sàmm yàlla bu ci dara suut di nuyu kilifa ak jataay bi di sëriñ si di nuyu sëriñ Fallou sëriñ Omar di nuyu mboolem kilifa yi ci roon jataay bi yëpp kenn ku nekk ab nuyu akub ziar bu méngoo ak wàccuwaay bi la suñ boroom jox maa ngi ñaan yërmande suñ borom aku njëggalam barkeb sëñ Tuubaa maa ngi ziare bokk yëpp jafal seenu taal ba tax njaboot di Tigee Njaay ak soxna Absa Njaay ak soxna Ummi Njaay ak soxna Olimata mel ni sëriñ bi moo joxewoon ndigal ci soxna Fatigee mi ak soxna Absa ñu jox leen sëñ Mbàkke soxna soxna Fatigé moo meññ sëñ Omar mii ñuy waxtaane loolu itam danga ciy jànge ni bu jëkk mag ñi seenu doxalin soxna dañ ko daan tànn ndax boo bëggee yar sa doom ba mu gëneegut àdduna nga koy tàmbali yar mooy danga koy tànnal waajur wu jigéen te tànn nag bu jëkk kilifa yi ñoo ko daan def waaye bañ ci génnee seen loxo di tànnal suñu bopp lanu musiba tàmbalee dal léegi koo ci wax dana la man soxna maa koy wutal sa bopp te sëñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Tuubaa daf daan wax ni portaatum soxna poñoxtiitum doom moo tax mag ñi dañ daan tànn tànn fi ñuy dugal ak fu ñuy génnee loolu moo leen may njaboot gu barkeel gi leen suñ boroom jox ñuy wax ni lu tax ñu daan tànn mooy ndigal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale waaye mag ñi dañ koo dund ndax yonent bi waxoon na nu ñeent yi ñuy sampe kër benn nga jël ko ngir ab taaram walla nga jël ko ngir alalam mbaa nga jël ko ngir aw askanam walla nga jël ko ngir diine ak jikko mag ñi nag mel na ni ci diine ak jikko boobu yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni mooy bi ci gën booba ca lañ doon tànne seen njaboot Cheikh Mouhamadou Lamine moom sëñ Tuubaa daam ko doon laaj ni ko ñaanug wàlli ak liggéeyum ndey lu ci gën sëñ Baara ni ko ku ndeyam liggéey du taseeg wàlli ba mu di ko ñaanal kon dafa mel ni taxawaayu waajur yu jigéen ñi amoon na solo trop ci démb ndax moo indi jeexital bii nga xamante ne nii mooy moom la ñuy sagoo mu mel ne sëriñ bii ñuy waxtaane di sëñ Omar ci néeg yooyu la bàyyi ko te mag ñi dañ daan wax ni képp ku la càmmiñam neexut bul jëlub jigéenam ndax boo jëlee jigéen ba it càmmiñ la rek ngay jur kon néeg bi mu bokk néegu ngor la ak diine ci lañ leen xam ci lañ jeexal seeg dund ba suñ jonni tey foofa rek lañ teg seen tànk mu gane àdduna ci atum 1914 mu mel ne ci at yooyu la sëriñ Abdul Xaadir feeñ kon ñoo bokk ay at doon itam ay bokk ndax bokkuk maaram ge doy na waaye bu ñu waxaatee itam ni ay Aysa Balla mu jur soxna Kanni soxna Kanni jur soxna Aminta Kanni muy waajuru sëriñ Abdul Xaadir kon bokk ga dafa fedd li ci biir bi mu tollee ci dal jàng yi itam dañ ko yóbbu ci sëriñ bi nga xam ne lu mu laal bokkul ak lu mu laalut suñ boroom def ci barke moo ko dalal bi ko dalalee itam mu jaar ci loxoy sëñ daam Abdourahman kon mel na ni bokkaat na ak sëñ Abdou Khadir benn barab bu ñu yewoo ci ak jaxasoo ginnaaw ak bokk waaye bokk itam barab bu ñu waaye ñu wax ni sëñ Omar moom yàggut ndaam ndax àggalewu fa naaw bi dafa laxas ñu wax ni jaar na Mérina sil waaye fa la tasee góor gi ñu wax sëñ ma Paate Njaay dëkk Longoor moo wax sëñ Cheikh yi Mbay wax ko ni ko am nga doom doomi ndey ju nekk Mérina yoo xamante ni daa bëgg a àggale ay lubaam mu waxoon ko ni ko fexeel ba indil ma ko leneen ba mu jëmee Longoor dañ ko boole góor gi ñu wax sëñ Moodu Soxna Fall fa la àllu baam ba lim bëggoon ci alxuraan suñu borom defal ko foofa itam joxoon nañ ko ab cër ak wàccuwaay ba sampaloon ko ab néeg boo xamante ne ni fa beru ngir gën a mën a jàng loolu itam mbokk yi dañu bëgg nu bàyyi ci xel ci ni njaboot dañ koy toppatoo ndax mag ñi bi ñuy laaj sëñ Tuubaa ni ko ndaw lu ndaw luñ yarut bu màggee nu muy mel sëñ bi dañ leen bu màgget di mag mu xamadi te li nu dal ci jamono ji ñun ñëpp nu di ko naqarlu te kenn mënu koo saafara ci barab yooyu rek lay bàyyi ko mooy mag mu ñeerul rek lépp ci moom lay xewe sëriñ bi itam ci junjam ak ku doxalinam ak fencoo yi mu daan fencoo ak mag ñi daf leen daan wax ni na ngeen doon seeni baay te bañ a doon seeni baay doon ak doon nag bokkut mu ni leen xam ngeen loolu nu mu demee sëñ bi jox leen misaal ni leen dafa am xaafisul quran bu ne ci ab dëkk man alquran lool te bëgg ko bi mu demee ba tële mu ràbb ak tëgët takk ko mu tiim bopp lalam saa yu xel mi nekkee ci alquran mu rocc ci kaamil bi jàng bu paree dellowaat ko fa sëñ bi ne ñu dem tuuti jamono góor gi wàcc ab liggéey bi waa dëkk bi dajee dañ ni amut doom ñu ko mujj xam ñu ko jëkk xam nag nee nañ am na doom waaye benn doom lam ndekete doom ji mbërum làmb la nee na ñu di ko wër ba fekk ko ci mbappat muy bëgg a bëre ñu wax ko ni ko sa waajur daa génn àdduna ñu bëggoon nga ñëw ca kër ga mu ànd ak ñoom ba ñëwee ñu dij ko ca lal ba Sëñ Tuubaa nee na kooko doon na baayam ndax toog na ca lal ba baayam daan toog bu solee dàll mu jot ko bu solee mbubb ma mu jot waaye ne da doon fudd nag loxo ba dal ci kawil ba kawil ba tasaaroo mag ñu jox ko ni ko lijjanti ko kiikat kat sa waajur moo ci daan jàng xamul kayit wu ànd ak morom ja mu ni kooko daa doon bàyyam waaye doonut bàyyam looloo moo taxoon muy sonn ci njaboot gi ngir ñu jaarale leen fañ leen waral jaarale ginnaaw boo xamante ne ni alxuraanam mat na mooy jàng xam-xam jaar na ci loxo yi sëñ Habibu mel na li ëpp ci am jàngam foofu la ko doon sayto jaar na itam ci daara yi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko sampoon ngir jàngale xam-xam foofu itam jaar na fa loolu itam taxawaay la boo xamante ne nii nit dañ koy taxaw ba mu xam li taxoon suñ borom wàcce ko fii ci kaw suuf tàggat ci ay cëram ba mu nangu caa yëngutoo ndax loola rek mooy mission bi ginnaaw boo xamante ne ni am njàngam mat na nag la ñibbisi bi mu ñibbisee wax nañu Cheikh Mouhamad al Fadal moo ko boole ak sëñ Baara Xureje mu dem saam foofa la nekkoon di fa dund di fa dundal diineem jaxasoo woon itam ak sëñ Baara Xurija lu lu baree bari loo xamante ne ni sori na ci moom ndax soxnaam su jëkk muy soxna Aminta Mbàkke Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko jox loola rek dana wane relation yi nga xamante ne ni am na ko ak njabootu sëñ Tuubaa gi ndax mel na ni ba mu ba ba boobu seen loxo jógu ci ndax ba waajur wi door a dem rek sëñ Mbàkke soxna sëñ Abdou Khadir mi nga xamante ne nii moo mag ci njaboot gi boole na leen ñoom ñëpp joxaat leen sëriñ bi jébbalaat ko ko sëriñ bi dénkaatoon ko ci itam ni ko nag ma ko toppatool ndax daam luñ ma batale woon ci moom kon mag ñu yàgg nañ ko bàyyi xel loolu itam jamono fi mu toll nii liñ ci war a jàngee mooy taxawaay yi ñu war a taxaw ci njaboot yi nga xamante ni ni dafa nekk ci suñ ron ndax mel na ni taxawaay yi xaw naa manqué ba tax na lu bare bari di xew te warut woon a xew waaye dangay gis mag ñi taxawaay yi nga xamante ne ni moom lañ doon taxaw ci njaboot giñ leen bàyyeel muy kenn ku ci nekk responsabilité ba nga ci war a jël waxtu wu ci nekk yaa ngi koy bàyyi xel. mu mel ni foofu yi ci kër sëñ Baara Khouréje jaxasoo gi ñu jaxasoo woon wax nañ ni ñu dul doom yu mag yi sëñ Baara Khouréje moom moo leen tudd ginnaaw bi. lu fi sëñ Baara amaat ci ba mu fa nekkee rek moo leen doon wutal aw tur di leen saytu loolu ak jaxasoo la dem nañ itam ba sëñ Baara jox ko doomam bàyyi na soxna itam jox ko kon loolu ak nawlonte la ak bàyyente xel ak itam xëy na ay jikko ak ay valeur yoo xamante ne nii mi ngi ci moom loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax bokk yi dafa am ñoo xamante ne ni leen suñu borom bindee mooy lu ñu baax baax ñoo dab seeni bokk ci ak baax am ñoo xamante ni nag nuñ mën a mel ñoo tane seen i bokk ñooñu itam dañuy ñaar ñoo xamante ne ni dañoo wuute moom farlu rek mooy li nga xamante ne ni moo ko war moo tax taxawaay yooyu yi nga xamante ne ni doon na ko taxaw ci wetu sëñ Baara Xuréja doon ko taxaw itam ca njaboot ga ba tax mu ràññu ko ca ba sëñ Baara doyloo ko doyloo goo xamante ne ni àgg na ci bàyyi soxna dénkaat ko ko loolu lu am solo la te jafe na it fi mu toll nii fii jamono ju toll ginnaaw boo xamante ne nii nag loolu jeex na étape boobu yi dafa bàyyi koowaat dellu Mbàkke ngir dundal jeexitali sëriñ Mbàkke soxna yi ndax sëñ Abdou Khadir mi ci magoon dafa féete tuuba mel ni kër sëñ Mbàkke soxna gi woon Mbàkke dafa gent tool ya kenn nekkatu ci ca la delluwaat nag yeesalaat barab ba yeesalaat tool ya fas yéene jaamu yàlla ak liggéey loolu ñi xam ak dundam xam nañ ko ci bu baax a baax mu doon nit koo xamante ni nii itam ku tàggatoon ay cëram la ci yëngutu lu lew lu mu mën a jaamoo yàlla di ca dimbali itam mépp mbokk moo xamante ni nii mu soxla la nit ñi wax itam ni suñ borom defaloon na ko ca barke boo xamante ne nii lu nawet naqari naqari naqari ay toolam lu mat ab dund dana ca bàyyi ko suñ borom defaloon na ko barke itam akuk doylu goo xamante ni nii waxtu wu ci nekk li ñuy soxlawoo ci kër gi bu ñu ubbee magasin ba danañ ko ci fekk lu néew la ñuy wuti marché waaye doonu doon nag ab dajalekatu alal ndax barabu dimbalikaay la woon boo xamante ne ni képp ku mës a soxla ndimbal boo fa wàccee sa aajo dana faju te loolu moo doon taxawaay bi nga xamante ni mag ñi doon nañ ko taxawee nga xam ni kon li nit li ci gën mooy mu niru la mu doon nekk fa mu war a nekk te lu jafe la nag ñu dafa am bis mag ñi toog ci Cheikh Mouhamadal Fadal di waxtaani mbind lu koy tax a rafet kenn ko ne wax sa xalaat sëñ Fallou ne leen bind li koy tax a rafet mooy araf wa day niru la mu doon ba pare nekk fa mu war a ne biñ ko nettalee sëñ son bu sëñ son bu yéemu ca lool ca wax ja daal ni loolu de baax na ci mbind waaye ci nit la gën nirul la nga doon ba pare nekk fa nga war a nekk moom daloon na jëmm jooji di sëriñ Mbàkke sëriñ Omar foofu itam mel na ni ginnaaw bu jumaay Mbàkke xewar jooji pare nga xam ni moom la ko Cheikh Mouhamad al Fadal dénk mu doon ko jiite ci ak njëlbeen mu doon tam jàngalekatub alxuraan ci ak mujjam daa mujj njabootam gu mag gi rekk la yóbbu woon bàmp na ñuy jàngi waaye ginnaaw bi ñeneen ñi ci des moo futtiku di leen jàngalal boppam ndax xam nañu defut lu gën jàng alxuraan ak jàngale ko tax mu samp daara di jàngal ak njabootam loolu itam bokk na ci taxawaay yi nga xamante ne ni doon na ko taxaw ci njaboot gi ngir saytu leen bokk na ci itam ci ay taxawaayam mooy nit ku dëggu la nit ku am ay relation la nit la itam ku am ngor te am diine nit la itam ku nangoo liggéey te mën a dimbale ndax wut alal taxu leen woon a jóg waaye da doon ab bànqaas boo xamante ne ni mënta ñàkk ci diine moo taxoon ñu futtiku ngir mën a réalise ponk boobu ñu gis ni itam ni ci taxawaay boobu yi nga xamante ni ni moom la amoon foofu yi ci Mbàkke te teewutoon muy dundal relation yi nga xamante ni ni moom la séqoon ak njaboot gi wax nañ ci diggam ak Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye la ci jiitu rek mooy diggam ak sëñ Abdul Xaadir bi nga xam ne mooy taawub sëñ Mbàkke Soxna di sëñ Abdou Dia nga xam ni bari na ci njaboot gi ñoo xam ne dañoo defoon ni doomi Sëñ Abdou Dia ndax nangul gum ko nangul ak déggal gum ko déggal ak nangoo topp gum nangoo topp ci moom bàyyi kilifteefam ak moom ci ndigal ak tere loolu itam mbokk yi gis nañ ni fii jamono toll kilifteef bokk na ci li gën a jafe ñaari ku ci nangu yilif ko rek daal ci problème waaye bu ne ci jàmm moom doo ko xamal dara loolu itam nag du aw doxin waaye dangay gis ni ñoom joxe nañ seen lépp waaye teewul nag njabootu Serigne Touba gi nga xamante ne nii ñoo fi nekkoon relation yi mu amoon ak moom ndax wax nañ ci biir jaar gu mu jaar ci daara yi Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir saytu xam-xam wax nañ itam soxnaam su jëkk Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko jox ab taawam itam moom la ko tuddee kooku suñ borom daf ko weddi moo tax mu amaat kaneen kum ko tuddeewaat yal na yàlla guddal fanam loolu itam day wane rek ni. fa mu waroon a taxaw ci dundal ak taalibe te bokk ga di des fa di dund ñaar yëpp la boole woon ndax bu ñuy jaawatle ak bokk akuk taalibe te sëñ Moussa daf daan wax lenn ci ay bokkam ni leen bàyyi leen mag bokk gi ma di ko dox te ngeen dox taalibe gi mel na ni moom loolu la doon dund parce que ak taalibe goo séq akub sëriñ sëriñ ko mën a dundal moo mën a dundal bokk ga waaye bu dee ci yow dañuy jàpp ni da nga koo yepp wala da koo tegul fenn ndax ay cër yoo xamante ne nii dafa war seen diggante ci war koo génn te loolu lépp ñu ngi koy royee ci sëñ Tuuba ku fonkoon ay bokkam la ku leen bàyyi woon xel la ku leen joxoonub cër la da ngay gis sax ci leetar yi mu daan bind bu dee bind sëñ Mor Jaara al aqul kabir lay def sama mag sëñ Mor Jaara ñëpp xam nañu magama waaye nangu dogalub suñu borom boobu yi taxoon na muy jëfandikoo terme yooyu bu dee bind maam Cerno da gis mu def al aqu saxir Ibrahima loolu lépp dafay wane rek ni cër yi suñu borom dogal seen diggante moom nangu na ko te mi ngi koy toppatoo bu dee bind sëñ Mbàkke Buso da ngay gis day boole doomi bàjjen ji ak doomi nijaay ji yépp lay boole ci leetar bi yooyu yëpp dafay wane rek nii am na ay taxawaay yoo xamante ne nii war na ko ci ñoom te mi ngi koy taxawee ngir dundal ak bokk loolu itam dañ ko caa war a roy ndax fi mu toll nii jamono toll boo waxee nañ naan sëñ Tuubaa amuti bokk te nangu nañ mu ami sët waaye amee sët nag am nay bokk am nay bokk bu baax a baax te fonkoon ay bokkam la jamono yi kër sëñ Mbàkke bu sëgee eh, jommee rek sëñ Moussa la fa sëñ Touba yabal ak sëñ Fallou ak sëñ Basiiru ni leen maa ko waroon a defar kon yéen a ma cay wóotu nga xam ne ñoom ñett sëñ Moussa la digal mu takk néeg ya daggaat kees ya fa mu newoon digal sañ Fallou lal ya ca biir a newoon mu wuti ko digal sañ Basiiru mu wuti téere bañ paree bayit ya ci sëñ Mbàkke bu sa def déen way mu ngi tasaaroo mi ngi ci biir njaboot gi di leen ci sant di leen gërëm ci taxawaay yi nga xamante ni moom lañ taxaw loola dafay wane rek nit ki taxawaay yi mu war a taxaw di gëm ak mbokkam relation yooyu itam la amoon ak Cheikh Mouhamadal Fadel ndax ba mu jógee njàng ma moo ko booleeg sëñ Baara Khourédia te kenn ku ne xam na relation yi sëñ falu amoon ak sëñ Baara Khourédia daanaka benn lañu woon ci lépp taxawaay yam yam fa taxaw ginnaaw sëñ Moussa itam sëñ Fallou la jox boppam ak njabootam ñëpp nekk ci gannaawam ci jëfe ndigal bàyyi tere ginnaaw Cheikh Mouhamadal Fadal nag la dem ci sëñ Abdou Khadir séddee ko boppam waaye jël aw taawam sëñ Cheikh jox sëñ Abdou jël sëñ ci ak sëñ sëñ Mbàkke mii di taawam mu jël ko jox sëñ Abdou jël sëñ jox ko mu féete fa. loolu dafay wane rek ni ñoom sëñ Tuubaa ci boppam moo leen ñor amuñ lenn ni sëñ Tuubaa loo xamante ne ni cof nañ ko daanañ am féete itam waaye amuñu farfarloo nag daanañ am féete. waaye amuñu far farfarloo ndax dañuy wax ni jëmm bu tëddee nga di ko bës tekki baaraamu sànq lañ ba di ko matt ndax tuutiwaay ba matt matt bi lay gën a yëg ci bës gi nga koy bës moo tax dawuñu cofal sëñ bi dara lépp comme lañ maasee woon loolu relation la yoo xamante ne nii yu am solo la doon dox itam ci ak taalibe ndax ne mus na ànd ak njaboot gi di ziyaare ji sëriñ bi bi ñu demee ba jub bunt bi daf leen taxaw leen ñu taxaw ngir kenn ku ci nekk làmbaloo ngàbb ndax ne leen kilifa dee su ko nuyoo loxoy kese kon moom mel na ni boolewul woon boppam ci kilifa yi ci taalibe yi ci la daan boole boppam doonte am na cëb cër boo xamante ni suñu borom mbokk sët bi ci coobareem ci baaxuk sëñ bi waaye teewut taalibe gi rek moo ko gënaloon te loolu la doon dund gis ni nag boobu yi nga xamante ne ni moom la féete ak sëriñ Abdou Khadir Sëñ Abdou Khadir def ko àndandoo def ko itam waxtandoo def ko ab nawle jàpp ko jàpp gu wér moom it muy dund loola ndax suñ Moussa dafa daan wax ni kilifa gum ci man di doon war naa am waxtandoo mu ni waxtandoo wa nag na doon ku xam diineem te amub reer ku xam diineem te amub reer nee na kooku la kilifa di waxtandoo ndax lépp lu la wax rek sab saga ci nekk maam waxul ngir bëgg ab reer te it diineem ba di la jay te nee na loolu kilifa gu nekk war na ko am sëñ Omar mi bokkoon na ci waxtandooy sëriñ Abdou Khadir bokkoon na itam ci ñi ko gën a jege nga xamante ne ni daana leen laaj xalaat yu bari daanañ am xalaat itam di ko indil daana am bokk yoo xamante ni buñ soxlaa jaaree ko ci moom su jaaree ci moom ca lay gën a gaaw a lijjantiku ci bu jaaree faneen ngir cër bu ko sëñ Abdou Khadir séddoon ci boppam wax nañ ni am na boo xam ne dañoo toog ay jóg moom la Sëñ Abdou Khadir woon an Omar jógoon jógoon dem mais eh, ba sëñ Njaañe di ko tooñ naan moom de mbokk ma rek lay woo loolu ak jaxasoo la goo xamante ni nii jaxasoo woon na ko ak sëriñ Abdul Khadir bokk na ci itam ay taxawaayam mooy waxtu wu ci nekk Sëñ Abdou Khadir daf ko daan seet si di ñëw ak a dem léeg-léeg rawatina nag di nga xamante ni nii dafa xaw a jëm ak mag ba pare wéradi loolu bokk na ci taxawaay yi nga xamante ne ni Sëñ Abdou Khadir taxawoon na ko muy taxawaay yu am solo yoo xamante ne ni mbokk war na koy taxawu mbokkam mooy nga koy taxaw ci bi ngeen di ànd muy man bu tëlee itam ngay taxaw su fi bàyyee ak njaboot itam sa loxo na ci te loolu mel na ni jafe na lool fii jamono ju toll. ñu wax ni Sëñ Abdou Khadir ci bari tànk gum daan bari tànk di ko seet see am na boo xam ne ba mu fay ñëw daa fekk kii doon nettali dafa. bi muy dugg ci kees gi daal seen dàll wu këpp sëñ bu xaadir ak farlu gi daa jàdd kuppër ci dàll wa door a jàll yooyu dafay wane rek farlu gi mu farlu ak bëgg gi nga xam ne doon bëgg na lu baax waxtu ci nekk mu ngi koy bàyyi xel mu demee ba tabje itam dafa yónnee ñu seetul ko ñu am na boo xamante ni dañoo toog ci biirub néeg sëñ mar booba jub nag mag banque gi mu banque tànk yi toogaay bi sëñ Abdou Xaadir xam ni du yàgg-yàgg ba mu tàllal ay tànkam Cheikh Abdou Khadre ñoo xaar ma yeewi leen ñaanal leen ngeen dem fee dallu ji ngir ak nawlonte ak safoo ak bàyyi xel goo xamante ni ni bàyyi nañ ko xel ndax dafa am bind yoo xamante ni dañ ko war a jàng ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi muy bàyyi xel gi ñu daan bàyyi xel ñi ñu daan àndal cër bi ñu leen doon sédd wàccuwaay bi ñu jox seen bopp lañ leen daan jox te dara waralu ko lu lu Sëñ Tuubaa rek a tax Sëñ Tuubaa rek lañ daan xool ci ñoom ñoom ñoo ñooñu itam cër bi ñu daan jox doomi Sëñ Tuubaa mooy Sëñ Tuubaa rek lañ daan xool ci moom da ci am xisa bu am solo bi sëñ Moussa ñëwee ci armeel yi tuubaay yi am kuñ doon taxawu sëñ bu sa ñëw na sëñ Daam Abdourahmane loo ñëw na waaye biñ ñëwee indaale wuñ seen oto dañoo ñëw ak seen tànk bi ñu dencee soxna soos yi ba pare sëñ Moussa wax safóoram ni ko na yóbbu sëñ bu sa yóbbu sëñ Daam Abdourahmane moom mu dox ak tànkam dem ñibbi Daaru Xuddoos te boobu mooy xalifab sëñ Tuubaa safóor bi bi mu demee ci sëñ Daam ni ko sëñ bi kat daa naa leen yóbbu yàgg sëñ Mbàkke sëñ daam dañu ko demal yóbbu sëñ Mbàkke ndax moo ma gën a jege sëñ bi ci ak bokk kooku ñëw wax sëñ Mbàkke ni ko sëñ bi kat daa wax ne naa leen yóbbu yàgg sëñ daam mu ne ko demal yóbbu sëñ daam ndax moo ma jëkk ci sëñ bi nga gis ni ñoom ñëpp jëmmi sëñ Tuubaa ji rek la ñu bàyyi xel moom mi leen jox oto jëmmi sëñ Tuubaa ji la bàyyi xel ñoom ñaar ñooy cër yi ñuy séddante jëmmi sëñ Tuubaa ji rek lañ bàyyi xel kon jëmmi sëñ Tuubaa jooji war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax ci Sëñ Abdou bu daan bëgg a ñëw léeg-léeg te xaw a tab je ba mënta ñëw day yónnee mais am na boo xamante ne nii sëñ Maxtaar Ami Njaay moom sëñ Buso bi moom sëñ Mbàkke Buso moom la yónni mu ñëw seet si ko mais ba muy dem sëñ Omar dénk na ko ni ko boo demee jot lil ma sëñ bi ndax booba xëy na ñaaw na njott ci boppam ci ni dund gi moom xëy na fii la ko suñu borom bëgg a yemale mu ne ko boo demee nee ko daal fee ma jëm bu ma fa gis dara lu may ragal loolu nee na ba mu dikkee wax ko sëñ bi xaar dana ko loolu fàgguloon nañ ko bu yàgg loolu lu am solo la ci ab ab ànd waaye ñu gis ko itam ci ak nangoo jaamu yàllaam ak nangoo liggéeyam ndax mag ci boo doon wax seenu métier da nga naan ñaar ñaar dong lañu amoon tatajafa junubum anil madaji wa mimma rasaqnahum yunfiqun ñaar yooyu rek moo doon seenub liggéey muy jaamu yàlla ak ak liggéey wax nañ ni suñ mataar moom yi nett leneen am na boo xamante ni jiit dugg na ci biir mbubb muy julli waaye yokkalu ko dara ci julli ga ba mu sëlmalee lañ ko lañ yëlëb mbubb ma jiit di door rot nga xam ne kon da doon fett ba mënatul a fett rek waaye yokku dara ci tawxiitam diggam ak boromam yokku dara itam ci méditation bi mu doon def diggam ak borom loolu bokk yi lu jafe la loolu dañ ci jàngee yittey mag ñi seen yitte ju kawe ak seenu bëgg yàlla ak seenu xër ci moom ak dox jëm ci moom noonu fi mu doon nii gunóor rek day yàqu sa julli gunóor képp sa mbubb fi mu doon nii sa julli yàqu wet gu ne ngay patamti kooka raay ak a tàpp ba julli gi xaw a yàqu loolu lu am solo la kon mën nañoo jànge ci ñoom ni sëñ Omar jikko yi rek lañuy tënk ci moom mooy nit ku woyof ku mën a muñ nit ku yaatu te lewet nit ku gore te dégg ndigal ndax fa leen suñ borom joxoñoon ni wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu foofa rek lañ teg seen tànk kon ñoo ngi wàcc foofu sunu kàddu di ñaan suñu borom yokk yërmandeem foofe mu nekk ci barsaqul muhammadiya ak mboolem bokk yañ fa nekkal ñi leen fi wuutu itam yàlla na suñu borom teg ci ñoom loxo ba li mag ñi doon mébét ñu yóbbu ko fu gën a kawe di ñaan bu baax a baax njabootu Sëriñ Abdou Khadir gi Sëriñ Cheikh ma nekk ci kanam ak mbooleem njaboot gi yàlla na leen suñu borom sàmm te aar leen yàlla na suñu borom dëgëral seeni taxawaay bala mag ña doon yéene yàlla na ci suñu borom def lu kawe seen jot waaye bis la boo xamante ne nii boo am solo la bis bu mat a bàyyi xel la bis la itam boo xamante ne nii eh, ci góor yàlla yu mag yi la bokk muy Serigne Abdou Khadir fi ñu ciy tënkee rek mooy benn bi Serigne Cheikh Mbacke nekkee ci tawat ji Serigne Abdou Khadir seet si na ko Serigne Cheikh Gaynde Fatma wax ko ni ko xam nañ ni digg bi ñot na waaye mënees na koo yokk loolu la ko Serigne Abdou Khadir wax mënees na koo yokk waaye Serigne Cheikh itam di ko gëm yàlla te doy lu ni ko bu ko yokkee day jeexaat rek nga gis ñoom ñaar taxawaay yooyu ñu am loolu lañu war a doon ci njaboot gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Ahmad njaay macha allah waxtaan wi am na solo lool wax dëgg yàlla mel na ni yaakaar ji ñu amoon daal ci yow ba tànn la joxe la bis bi mel na ni njaboot gi am nañ ci lu kawe seen jot. xanaa li li ñuy xaw a kii rek mooy xataay waxtu yi waaye mel na ni yaa ngi woon ci point yu am solo di ko ñaanal gën a guddal fanam te barkeel moom it ku xam wax dëgg yàlla xam ko ci yoon wi xam ni ku ku ku ku ñeme dëgg la koo xam ne li muy wax moom xoolu ca lu neex diw ak lu naqari diw boo ak i xikma yi muy wax nga xam ni waxtaanam ñépp a koy mën a déglu loolu di lu am solo loo xam ni ñu ngi ko ci ndokkeel di ko ñaan suñu boroom gën a yokk aw fanam te gën a barkeel xam-xamam kon bu ko defee dafa mel ni waxtu wi jege na xam naa dañuy tegee ni foofu kàddu yi rek buñ euh, jullee timis ba noppi incha allah ñu ñëwaat ci jotaay bi ñu motali kàddu yi des njabootuk sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Moustapha Abdul Xaadir Mbàkke jëwriñu sëriñ Cheikh Mbàkke Abdul Xaadir sëriñ Sidi Mbàkke Abdul Xaadir jiitu comité d'organisation màggaluk sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ak mboolem njabootuk sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke gi ñuy amal altine benn fan ci weer août 2022 ci Touba kër sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des mourides muy bésub pajum ñaan ni ko Serigne Moustapha Abdoul Khadr Mbacké di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine l'islam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy Serigne Abdoul Khadr Mbacké ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des Mourides ñu ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi jàkka yi ak mboolem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala nabi ñu def ko addiya sëriñ bi amal ab table ronde 17h ci kër Serigne Fallou Mbacké xalifa Serigne Oumar Mbacké 23 juillet 2022 17h ab table ronde ci kër Serigne Fallou Lo xalifa Serigne Makhtar Binta Lo ci Touba Soura le 25 juillet 17h ab table ronde ci kër Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation màggal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootug Serigne Touba gépp Mbacke Mboussobé mboolem ñu ñu bokkal Mam di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak Serigne bi bés bangoog magal annuel Serigne Abdoul Khadr Mbacke quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër Serigne bi jàkkaarloo ak Juma Touba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ci ndigalu Serigne Touba Touba Serigne ba Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu Serigne Cheikh Amadou Mbacké xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabotuk Serigne Abdoul Khadir Serigne Moustapha Abdoul Khadir Mbacké jëwriñu Serigne Cheikh Mbacké Abdoul Khadir Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadir jiitu comité d'organisation màggaluk Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabotuk Serigne Abdoul Khadir Mbacké ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk Serigne Abdoul Khadir Mbacké gi ñuy altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdoul Khadir Mbacké jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des mourides muy bésub pajuma ajo bésub njéggal mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine l'islam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy sëriñ Abdoul Khadr Mbacké ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des mourides ñu ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi jàkka yi ak mboolem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan alxuraan xasida ak salaatu ala nabi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet dinañu amal ab table ronde 17 heures ci kër sëriñ Fallou Mbacké xalifa sëriñ Oumar Mbacké 23 juillet 2022 17 heures ab table ronde ci kër sëriñ Fallou Lo xalifa sëriñ Makhtar Binta Lo ci Touba Soura le 25 juillet 17 heures ab table ronde ci kër sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ci kër sëriñ Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khader ak mboolem membre comité d'organisation màggal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbacké Mbusoobe mboolem ñu ñu bokkal Mam Maram di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak Serigne bi bés bangoog màggal annuel Serigne Abdoul Khader Mbacké quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër Serigne bi jàkkaarloo ak Juma Touba asalaamu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. 28 ci la ñuy daje ci bis bi ci kër gi baas lépp loo xam ne soxla ko ci wàllu baas ñu def ko ñu xam ndax ci nawet la ñu nekk ginnaaw ci nawet la ñu nekk rek bëgg nañ képp ku ñëw ci baas bi ku ñëw ci màggal gi doo kon nag ñu woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ñëw jàppale ñu suñ bis bi nga xam ne amuñ lu may moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi rahmaani rahim barke sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar di yëkkati sunu kàddu rek ci turu mboolem turandoo Sëñ Abdul Xaadir yi nga xam ne bis bi seen bisu bopp la ndax ñoo ko tàmbali woon. Sëñ Bilane nag newoon na mbir yi ñett la li nga moom ak li nga bokk ak li nga doonul dara lii nag dañ koo moom. kon ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci turu Sëñ Abdul mi nga xam ne mu nekk ci bopp bi di soññ mboolem fu turandoo Sëñ Abdul Xaadir nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñu bokk waajal bu baax sunu bisu turandoo bi kenn ko nekk. fa nga daan bindoo cellule ba fa nekk nga dellu yeesal mbind ma te joxe fa sàddiya ngir waajal bis bi. bu ko defee cellule bi nga xam ne moo nekk diggante Touba ak Mbacké ñu ngi leen di soññ moom ci liggéey yi nga xam ne moom lañ daan taxawee tàmbalee ko ci mbale mi nga xam ne moom la ñu woote ajjuma le 22 bu ñu xëyee ñu ñëpp ñu bokk rajo fii ci kër gi ngir ànd ko bokki talibé yi waajtaayu màggal gi it liggéey bi nga xam ne turandoo chef de xarit taxawee ci biir kër gi dara soppiku ca nga xam ne mooy jiitu màggal gi ba ci bisu màggal gaa ñun ñëpp ñu bokk daje ci kër Serigne Mourtada Mbacké moom Cheikhul Khadim wéyal fa liggéey bi ñu daan def ci jàng alxuraan ak xasida yéen doo ko fanaane ko def ko dee Cheikh Abdoul Khadir sukkandiku ci ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Amadou Moustapha joxe ñu bàyyi ko xel ci ni nga ko daan waajalee fu turandoo Cheikh Abdoul Khadir nekk mu jàng kaamilu alxuraan def ko addee Cheikh Abdoul Khadir loolu nag benn kaamil la tàmbalee waaye lu waaye man ci limub alxuraan du doy na ko def ñu def ko addee Cheikh Abdoul Khadir te lim bi bu ñu déggee kër Serigne Mourtada ñu dégale ko jox ko jëwriñ ya fa nekk incha allah kon ñu ngi ci woo futurandoo si Abdou Khadre nekk bàyyiwuñ kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu sunu sëriñ su sell si toog di sëriñ Moustapha ak njabootu sëriñ Abdou Khadre gépp di nuyoo itam nag ci turu waa ahlu tarbiya yi nga xamee ne ñoo tarbiya waa ci sëriñ kër sëriñ Abdou Khadre di leen soññ rek nan leen daa soññee soññee bi nag sunu sëriñ sax jàppale nañu loolu muy sëriñ Moustapha. ndax dégg ngeen ne tudd na donge laxasaay yëpp loolu doyoon na ci waaye nag li taxitam ñuy wax dafa am yoon wu daa doxe muy jëmmi liggéey bi nga xamee ni ñoo ko yoroon ci kër Serigne Abdou nga xam ne biir kees yi ñoo ko daa seetal ci njëlbéen gi di ko seetal ca mujj ga sëriñ Touba Mbacke nag waxoon ne nan leen ci soññu ba kenn ku ci nekk nga bàyyi ko xel te fas ci yeneen liggéeyal sëriñ bi la cee tege moo ñu deen soññ ci ah addi yi daa joxe di ko dajale muy ahlu tarbiya bi seen i teg ak social bi nga xamee ne dañ koo def ci biir ngir di ci dimbalante ñu di xamal rek ne leen yéen seen digal na nga xamee ni laa da ni la daa doxee dara da ca soppiku wut lu weesu wut njëkk fi mujj fi ànd ak yar ak i teggin te ànd ak sëriñ bu so mi nga xamee ne mooy suñ njiit ne ci suñ kanam di ko déglu. lépp loo xamee dafa jóge ci sëriñ siidi bu jaaree ci moom bu egsee ñu jëfe ko nañ ko war a jëfee loolu mooy suñuy wax mooy suñu jëf ñi ngi leen di woo ñi nga xamee ne dañoo nekk fi jege dëkk bi ñi ngi leen di woo réunion ajjuma ñu teew fii ci kër sëriñ du Khadir ñi nga xamee ne dañoo ne bitim réew itam ñi ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk ndaw la la ne ci sa kër moo xam sa doom la moo xam sa soxna na nga ko jox addi yi mu indi ko ajjuma loolu daal mooy soññe bi Serigne Touba waxoon ne nañ ko wax muy Serigne Touba Mbacke Baxdaat te tam jóge ci Serigne Jili Ndiaye mi nga xam ne ñun ñëpp mooy sun mag ak ku mel ne Serigne Mbacke jan ak sëriñ El Hadj Ndiaye Rasit ak Serigne Afi Bousso moom yi ndax ñoom itam jàpp nañ ci daayira bi lool wéttali nañ ñu lool kon ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom guddal seenu fan defal leen tew feex ba li ñuy mébati sëñ bi di ko yaakaar lépp ñu defal ñu ko ñu ñaan nag ah, Serigne di Mbacke mii nga xam ne mooy suñ jëwrin ah Serigne Moustapha ñi ngi lay ñaan nga ñaanal ko. Mm-hmm. aw fanam gudd tam wér. ndax nit la koo xam ne mi ngi déglu ñëpp. xeebut xelam kenn. te du sonn ba soppiku. kon nag ñu ko ñaanalal bu baax a baax ndam lu mu ci daa am yal na ci am ren lu ko ëpp ci barkeb Serigne Abdou Khadir. bis baa ngi noonu mooy bis suñu jàmbaar ja ka nga xam ni moo daa tudd doom yi du jullee ji néew yi dafay ordonnance yi wuuf njaboot gi kenn juyut xanaa dégg ngeen la ma waxoon sëñ jëli gànnaar ba mu ko joxee ñaari junni ne ko ku ñaan maram juuf moo ko jox ma nga njukki nee dafa ragal bàmmeel mu ne ko na dalal xelam jukkee naa ko fa kookoy Cheikh Abdou Khadir ilimaan yi teeg ba liggéey bi mu fi nekkee ilimaan la bi mu fi jógee ilimaan la ba léegi mi ngi ci penku jumaa ji l'islam jëmu ko Sénégal yebul sëñ Abdou Khadir ku mu jur yar na la teg na leen ci yoon ku ñëw ci bis Cheikh Abdou Khadir alxuraan moo lay fay ak julli ak yitte lay kar fay la bis baa ngoog le premier la bu kenn manqué ñu xam ne nag bâche bi ci guddi gi xaarim gi moo fay fanaanee jàng ba bët set na ñépp ñëw bi seex Abdou Khadir ku ci ween ci lu baax dootoo nëbbu a way man donga bi mbokk jullit yi mbokk taalibé yi ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu Serigne Cheikh Amadou Mbacké xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabotuk Serigne Abdoul Khadir Serigne Moustapha Abdoul Khadir Mbacké jëwriñu Serigne Cheikh Mbacké Abdoul Khadir Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadir jiitu comité d'organisation màggaluk Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabotuk Serigne Abdoul am mbégte benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdou Khadr Mbacke jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des Mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ñu ko Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacke di waxee ak mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine l'islam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jaamu yàlla muy Serigne Abdou Khadr Mbacke ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des Mourides ñuy ñaan kuréelu xasida ni jumaa yi jàkka yi ak mboolem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala nabi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet dinañu amal ab table ronde 17 heures ci kër sëriñ Fallou Mbacké xalifa sëriñ Oumar Mbacké 23 juillet 2022 17 heures ab table ronde ci kër sëriñ Fallou Lo xalifa sëriñ Makhtar Binta Lo ci Touba Soura le 25 juillet 17 heures ab table ronde ci kër sëriñ Sidi Mbacké Abdoul le 27 juillet 2022 ab plateau plateau spécial ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation maggal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbacké Mbusoobe mboolem ñu ñu bokkal Mam Maram di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak Serigne bi bés bangoog màggal annuel Serigne Abdoul Khadr Mbacké quatrième xalif général des Mourides altine benn fan 2022 ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dir sang bi laa bëgg a way man donga bi. mbokku jullit yi mbokku talibe yi. ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. ci kilifte fu Serigne Cheikh Amadou Mbacké xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabootug Serigne Abdoul Khadir Serigne Moustapha Abdoul Khadir Mbacké jëwriñu Serigne Cheikh Mbacké Abdoul Khadir Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadir jiitu comité d'organisation màggalug Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabootug Serigne Abdoul Khadir Mbacké ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk Serigne Abdoul Khadr Mbacke gi nuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdoul Khadr Mbacke jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des Mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko Serigne Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak dundal diine l'islam daan dund di dundal sunna dundam yépp ngir jaamu yàlla muy Serigne Abdou Khadr Mbacké ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des Mourides ñuy ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi juma yi jàkka yi ak mbooleem jullit yi du nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaatu ala bi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru dina dinañu amal ab table ronde 17 heures ca kër sëriñ Fallou Mbacke xalifa sëriñ Omar Mbacke 23 juillet 2022 17 heures ab table ronde ca kër sëriñ Fallou Lo xalifa sëriñ Makhtar Binta Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17 heures ab table ronde ca kër sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma ji ci teewaayu Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadr ak mboolem membre comité d'organisation màggal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootu Serigne Touba gépp Mbacké Mbusoobe mboolem ñu ñu bokkal Mam Maram di ko yëgal cheex yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak Serigne bi bés bangoog màggal annuel Serigne Abdoul Khadr Mbacké quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Touba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dir sang bi laa bëgg a way man donga bi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu sëriñ Cheikh Amadou Mbacké xalifa sëriñ Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabootuk sëriñ Abdoul Khadir sëriñ Moustapha Abdoul Khadir Mbacké jëwriñu sëriñ Cheikh Mbacké Abdoul Khadir sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Khadir jiitu comité d'organisation màggaluk sëriñ Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabootuk sëriñ Abdoul Khadir Mbacké ñoo am mbég mbégte di yëgle ko woote màggaluk Serigne Abdoul Khadr Mbacke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2022 ci Touba kër Serigne Abdoul Khadr mbakke jàkkarloo ak juma Touba muy bésub sant bésub fàttaliku bésub ñaanal ak màggal imaamu imam yi quatrième xalif général des Mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko Serigne Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine l'islam daan dund di dundal sunna dundam yépp di yàlla muy Serigne Abdou Khadr Mbacké ibn Cheikhul Khadim quatrième xalif général des Mourides ñuy ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi jàkka yi ak mboolem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida bi di école bu ñu leen ubbil ci Dakar Sacré-Cœur 3 di jàngale alxuraanul karim ba ngeen mokkal ko ci njàngin wu leer te sell yéen ñi yor seeni doom nekk ca bitim réew bëgg ñu ñëw fii ci Sénégal jàng alxuraanul karim ci bërëb bu am kaaraange set te sell am toppatoo jëmee ci xale yi wala ngeen bëgg seen doom yi jàng kalamay français arabe ba ci anglais Al Azim Academy am nañ fa ay jàngalekat yu xarañ lool am expérience ci wàllum jàng ak jàngale njàngum alxuraanul karim gi day ànd ak njàngum fiq ak lépp lu jëm ci wàllum diine njàng mu wér ànd ak yar xale bi ci àddina ci daaray internat bu am kaaraange set xale yi di dëkk ci ay chambre climatisée ay lal yu confortable di leen fóotal fóot mu set boole ci ñuy def tàggat yaram yéen yi bëgg seen doom yi jàng alxuraanul karim ci vacances yi Al Azim Academy day organiser deux mois cours de vacances ci mois d'août ak septembre bu leen neexee jël benn weer wala ñaari weer yépp ci njàngum alxuraanul karim yi anglais la wala français yéen ñi nekk ci diaspora bi bëgg indi fii seen doom ci Sénégal ngeen bëgg ñu maîtriser français wala anglais laataa ñuy dugg école Al Azim Academy ñoo ci mën jàngal xale bi langue yi bañ maîtriser ko am nañ fa aussi salle informatique di leen jàngal lépp lu jëm ci xarala yi ñëw leen gaaw inscrire seen doom yi ndax nombre de places yi dañ ko limité 15 élèves rek la ñuy def ci classe bu ne ndax bëgg enseignement di njàng mi nekk njàngum qualité immeuble 9496 jokkool ak ñoom ci 77 778 25 25 bu la neexee nga bàyyi leen ci message par WhatsApp wala 33 822 53 53 ñëw leen gaaw ndax ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak juma membre comité d'organisation magal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen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 bu imam yi quatrième xalif général des mourides muy bésub pajum aajo bésub njéggal bésub xéewal di bésub nangu ñaan ni ko sëriñ Moustapha Abdoul Khadr Mbacke di waxee at mu nekk nañu chargé waat sunu batterie ruu te waajal bés bi muy bésub al imam akbar mi daan dund ak a dundal diine lislaam daan dund di dundal sunna dundam yépp di jàmm yàlla muy sëriñ Abdoul Khadr Mbacke ibnu Cheikhul Khadim quatrième xalif général des mourides ñuy ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi jàkka yi ak mboolem jullit yi lu nu mën ci jàng alxuraan xasida ak salaat salaatu ala nabi ñu def ko addiya sëriñ bi programme bi ren ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet dinañu amal ab table ronde 17 heures ca kër sëriñ Fallou Mbacké xalifa sëriñ Oumar Mbacké 23 juillet 2022 17 heures ab table ronde ca kër sëriñ Fallou Lo xalifa sëriñ Makhtar Binta Lo ca Touba Soura le 25 juillet 17 heures ab table ronde ca kër sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Khadr le 27 juillet 2022 ab plateau spécial ca kër sëriñ Abdoul Khadr Mbacké jàkkaarloo ak jumaa ji ci teewaayu sëriñ Sidi Mbacké Mbacke Abdoul Khader ak mboolem membre comité d'organisation Magal gi ñu koy amal en direct TFM Touba TV ak Sen TV ñu di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbacke Mbusoobe mboolem ñu ñu bokkal Mam Maram di ko yëgal cheikh yi taalibe yi di réew meeg bitim réew mboolem këru diine yi ci Sénégal mboolem jullit yi rawatina ñi wëllarante woon ak Serigne bi bés bangoog Magal annuel Serigne Abdoul Khader Mbacke quatrième xalif général des Mourides altine benn fan ci weeru août 2022 ca kër Serigne bi jàkkaarloo ak Juma Touba asalaamualeykum wa wa barakaatu. laa bëgg a way man donga bi mbokk jullit yi mbokk taalibé yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu sëriñ Cheikh Amadou Mbacké xalifa sëriñ Abdoul Khadir Mbacké ak mbooleem jabotuk sëriñ Abdoul Khadir sëriñ Moustapha Abdoul Khadir Mbacké jëwriñu sëriñ Cheikh Mbacké Abdoul Khadir sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Khadir jiitu comité d'organisation màggaluk sëriñ Abdoul Khadir Mbacké ak mbooleem jabotuk sëriñ Abdoul Khadir Mbacké ñoo am mbégte di yëgle ko woote màggaluk sëriñ Abdoul Khadir Mbacké gi ñuy amal altine benn fan ci weeru jàkkarloo ak juma Touba muy bésub di leen siyaare di leen bal ak di leen balu ak di fab nuyoo bi di ko toog ci loxol sëriñ Sidi Mokhtar ibnu Cheikh Abdoul Khader di ko masawu ci coono yi ñëw gi ba fii ndax ni ndox mi mel ak yoon wi ñu ngi la koy masawu di la ko jéglu waaye li ngay dox jaral na la ko muy lu lu jëm ci dundalu bokk ñu ngi lay nuyu di nuyu délégation bi nga àndal bi nga xam ne boo ko xoolee ba settantal ko kenn ci ñoom ku ne boo ko boo leen yebaloon te bañ ñëw dara du ci manqué ndax sa ñëw gi day mel ni ñëwug suñu seex mate na ko waaye ñoom ci seen bopp kenn ku ci nekk ci ñoom mën naa taxaw sa taxawaay ndax nu ñu demee ci kër Serigne Abdoul Khadir ak nu ñu demee ci mbokk gi kon yàlla na yàlla barkeel seen jéego yépp muy jotaay boo xam ne bii liñ ci jublu ñu ngi ko ci am yaakaar lool muy loo xam ne dana neex Cheikh Abdoul Khadar te it dana neex xaritam bi taalibam bi Serigne Omar Mbacke te dina neex képp ku bëgg lu baax te xamoon seen diggante kon jamono ji gàtt na te xat na rawatina wax nañ ne mi ngi xiin ci suba ba nëgën te daa mel dafa gën a kii kon waxtu bi gudd dañ koy tënk rek. lépp nag mënta su sant ndax diggante sëriñ Abdul Xaadar ak sëriñ Omar Mbàkke radiyallahu anhuma liñ ci xam xam naa bariwut waaye am na luñ ci xam muy ñu bëggante woon lañ sëriñ Moodu moom Cheikh Abdul Xaadir radiyallahu anhu dama mas a wax ca bustaan ne ma sëriñ Abdul Xaadir daa bëggoon suñu Omar ba bu ko gisee doy na ko wétal walis muy gis mbooloo ak yeneen yim ci teg yoo xam ni yu luñ mën a wax fii waaye seen diggante ñi fekkewut seen ànd bu njëkk yi ci mujj gi te dem nañ boobu ba gën a jëm ma gën a ñàkk jot waaye teewut lépp rafetal nañ ko ku ci ne fa ngay waroon teg sa morom teg nga ko fa ndax sëñ Abdou Khadir ak sëriñ Omar sëriñ Omar defoon na ko mu di sëriñam lu mu doon doon mbokkam ab sëriñam la ko defan boo xam ne bii na mu doon doxee moom ak taalibeem yàlla man xam naa ne lu jafe la dara desu ci woon nag ndax xam naa ne du si dàllam du gis baxana seen bët ñeent moom waaye ku amoonuk taalibe la waaye ku amoon fulla la amuk diineem ak amuk taalibeem li ma ciy def firnde nag mooy bis ba ma koy tàggu di war a dem Amérique la mujj wax ak man muy ñaari kàddu yu gàtt mooy lépp looy def ba jaamu yàlla jot ak lu mën a doon na ko bàyyi su doxee sa digg ak jaamu yàlla na nga bàyyi loola suñ tubaay na ko wéetal baat boobu ci moom laa njëkk a dégg na ko wéetal kon ak njëlitam dundal na ko dox na ko ak taalibeem it ñun ak njabootam gépp gis nañ ni ni mu ko doxee ak Cheikh Abdoul Khadir njaboot gi it yaakaar naa ñu ci ñoom Cheikh Abdoul Khadir la leen dénkoon man mii lañ ci joxoon sëñ Abdou ak sëñ Mbàkke bis bi sëñ sëriñ Abdoul Ahad ne la wet Mbàkke demoon jébbalu ci sëñ Abdoul Khadir ba ma ko laajee def na ko ma nga kër sëñ Abdou Lahat sëñ Abdoul daf ko wax na ko foofa la war a nekk kon ñoom li leen waroon lépp ci ak boole def nañ ko li leen waroon lépp ci ak mbokk def nañ ko lu des suñ ginnaaw la desee waaye ñoom yàlla na yàlla fayal leen noonu te yokk seeni yërmande xanaa daal li mat a def mooy di roy ci ñoom képp ku bëgg def lu baax te bëgg a baax moom da leen roy loolu daal moom mooy li nga xam ne moom xam naa ko moom ku ku ku bëgg a baax boo royee ci ci ci ci ci mag ñi da nga bëgg baax ndax sëriñ Abdul Xaadir baatinam kenn nattabliwu ko waaye ak bëggu mbokkam it baakaar naa ku ko wax it ngay waxaat waaye kenn nattabliwu ko bëggu sëriñ tu bëgg sëriñ Tuubaa kenn te bëgg sëriñ waa mooy tax mu bëgg mbokkam yi kon yal na ni yàlla yokk seeni xéewal te taas ci seen barke te yàlla may ñu nag ñu nangoo aw ci seeni tànk te nangu di leen roy te nangu li yàlla dogal ci ñoom mu yàllaa leen tànn jiital leen kon ku bëgg a baax boo ci royee danga baax ndax loolooy sababu suñ borom indi leen fii ndax bëgguñu roy ci ñoom kon sëñ Fallou nee na ak mboolem njabootu sëñ Omar gi sëriñ Sidi nee na ñu ngi lay sant ci lii nga def ndax lii kat rëy na ci ñoom rëy na ci ñoom lool lool lool ndax seen waajur wii kat amuñ lu mooy moom te Cheikh Abdou Khadir la leen dénkoon kon nag bu ngeen wëlbatikoo yéen ci seen bopp xool ba xam ne bis bii war nañ koo jagleel suñu Omar wax da yàlla réy na ci ñoom te am nañ ci tuuti kersa ndax jampaay gum jamp ci seen di ñoom ak ni jamono demee nawet beeg yoonu metti weeg yëpp waaye kon yaakaar naa mbooloo mi dina fa gën a bari ndax yeeyoo nañ ko yeeyoo kenn ku ci ñoom ku ne buñ la wooteelee rek am ngont war naa euh, mel noo xam ne kenn du ko euh, kenn du naatable ne fonk nañ ko kon xol bu sedd bi moom ak cant gi ñu ngi koy teg sa loxo nga jottali ñu ko sëriñ Cheikh ak mboolem waa kër sëriñ Abdul Xaadir mu jóge ci mboolem waa kër sëriñ Omar sëriñ Fàllu nee na daal li mu bëgg a wax lépp xam naa man mit lot naa ci wax ko ndax bëggoon naa ma fexe fexe ba du ko wax waaye ginnaaw ndigal la nag des na ko wax waaye lu mu gudd gudd daal sant la ak ngërëm ak di ñaan fi ngeen bëgg àgg ngeen àgg fa ak képp ku leen koy ne ci bàkki Seexul Xadiim ñu ngi koy yamale foofu ñaan mbooloo mépp nag ñu may ba sëriñ bi jóg ba dugg fu mu war a dugg ñu soog a jóg ndànk topp ci wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Cheikh ci kàddu yu am solo yooyu mu fi rotal kon mu mel ni benn kàddu rek moo ci des muy kàddu sëriñ bi te wax nañ ne daf koo jox Serigne Serigne Mbacke Abdourahmane mu mel ni kon mooy wax ci kàddu délégation bi nga xam ne Serigne Sidi moo ko jiite.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 waaye indiwaale nuyu ak siyaarub njabootug sëriñ Abdul Xaadir gépp ñëw fii ci kër sëriñ njabootug sëriñ Omar Mbàkke te sëriñ Fàllu nekk ci seen kanam jataay boo xam ne nii ko mbokk yi waxee dundal ak mbokk jokk ak mbokk fedd li ko dëgëral luñ seqoon moo ko waral sëriñ baa ngi am mbégte lool moo ngi ñu àndal ci ni jataay bi demee jotaay boo xam ne koo xool rek sa mbokk bu du toon dara it mbokk yi fi daje rek yiwu rëy la nga dajal leen ci benn baram ndax jamono toll na foo xam ne ay nit daje yombatut du ñàkk yitte waaye jamono toll foofu moo tax fasa yu mel ni njariñ la ñu bëgg lu baax ñëpp suñ ko wootee ñëpp ñëw sëriñ baa ngi lu lool jataay bi xëy na sëriñ Cheikh jàpp na ne mbooloo mi xeeb na ko waaye loolu seen yéene rëy waaye nit ñi fi teew moom ku xam danga xam ne euh, lu yittee ju ñor lu far moo leen dajale ci barab moo tax sëriñ bi di bég lool ci teewaay bi jublu gi nag ci jataay yi mbokk yi ju ñu nañ ko ci waxtaan yi bokk na ci li ko waral kàddu yi ñu fi dégg sëriñ bu Diouf sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguirane yiñ fi leeral ndaw ñi dañoo toll ci ñu war leen a xamal yooyu ñu xam ne démbay defar tey tey defar ëllëg nit ñi seen ëllëg balaa jag ñu xam seen démb lan la ci jàngat dundug mag ñi seeni taxawaay seeni nekkin danañ xam ne ndekete dara du hasard nit ñi li ñu am ci lu baax foruñ ko ci mbedd dañ koo jëf ñu faggul leen ko loolu bu dee buñ ko jàngee ndaw ñi xam ko dana tax ñépp ñu mën a am yaakaar ci ñoom loolu tax sëriñ bi gis ne sëriñ Abdou Khadir bisam bisub lislaam la bisub mbokk gépp la moo tax su ñëwee ñu di ko yaatal kem kàttan nu mu gën a yaatoo ci kilifa yi ak mbokk yeeg wala rëy sëriñ Omar mii nag ku xam sëriñ Abdou Khadir xaw a yàgg moom tuuti xam nga lim seqoon ak sëriñ Omar te it lii kilifa yi wax mbokk geeg yépp am na solo waaye bokku jublu mooy moo moo tax ñu gën a déggoo dañoo bokkoon luñ bëgg bokk ak jublu ginnaaw bu nekkee bokk ci deret diine ñor leen ak taalibe ñor leen ñu doon ñu ci doon ànd ñi ko sëriñ Cheikh waxee léegi sëriñ Omar daf sëriñ Abdou Khadir ab sëriñam waaye sëriñ Abdou Khadir nangul ko sëriñ gi waaye nangu ko mbokk gi leen boole muy mbokk yaatu nag mbokk yi wax nañ ci niñ bokkee ci maam Abdou Khadir maam maadam waaye nañ bàyyi xel ne bokk nañu ne soxna Faati Gay Njaay mi ko jur anta bi seen jaxate mi ko jur surtout soxna Mbàkke Awa Ñaŋ kon mbokkum maam maarama mbokkum Sëriñ Abdou Khadir da ci wet gu ne yooyu yëpp nag ñu boole ko ak taalibe gu rafet gi ko cuub muur ko loolu di lu rëy loo xam ne nit ñi war nañ ko jàng ndax bokk na ci li jamono soxla fi ne kon sëñ sëñ Sidi moom xolam sedd na xelam dal na moo ngi ñu àndal ñëpp ndax mel na ne xam xam ngeen li taxoon muy tànn sëriñ Omar ñun ñëpp lu ñu gàtt gàtt euh, euh, xam-xam xam nañ ne ñi sëriñ Abdou Khadir gënoon a safoo sëriñ Omar ci la bokk. mu doon mag mu yiw mag mu xay mu am diine mu dal mu teey ku mel noonu nag ku baax da nga ko safoo rawatina bu dee sa mbokk mu tax Sëriñ Abdu Xaadir fonkoon ko moom itam mu jël Sëriñ Abdu Xaadir daf ko am Sëriñ Tuubaa moo tax bari na tukki yoo xam ne Sëriñ Abdu Xaadir bu daan dem faaw da koy jëli lu ànd ak moom ndax ñu mel noonu ñooy wéttal loolu nag li ci ñëpp war a jàngi mooy ku ne am nga ñoo war a wuti jéem ànd ak ñoom doomu aadama am na fu la yàllay teg du koo jot ànd ak moom Sëriñ Abdou Khadre suñu roykaay bii ñu tax ñu daje di ko fàttali daawut ànd ak ñëpp waaye sëriñ Amar nag ànd na moom waaye ngir jikkoom ndax lan ànd koo xam ne day sar ba ëllëg borom bi nee na laxilaahu yow ma itin baaduhum yow ma itin baaduhum li baadin aduwwun illal muttaqin ñi ànd doon ay xarit ci àddina bu yemal xeeme ay noonu la ñu doon lu dul ñi àndoon ci taqwa ñu wax ne wa idan nufuusu zuwijat bu yemal xeeme bakkan yi dañ leen di peerale ñi bokk nuñ mel bokkoon lañ doon defee ñooy ànd bokk fuñ jëm sëñ Abdou Khadir nag ni mu doon mel di ko doxee melokaan wala sëñ Omar Yoro moo taxoon ñu mën a déggoo kon ku bëgg ànd ak ku baax it na nga fexe mel noonu loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ bi waxoon na ma jot ne ko ginnaaw bu mu santee ñaan yàlla njërmaane ak ngërëm ak barke yàlla na dott ci kaw mag ñu baax ñi ñuy fàttaliku waaye yàlla sàmm seen njaboot it kóllëre googu it sëriñ baa ngi sant bu baax rafetlu ñu ko njaboot gi rafetlu maa niñ jàppee xam bu baax li sëriñ Omar seqoon ak Seydou Khadir ba taxit lu xew kër Serigne Abdou Khadir kenn duñ ci man loolu bokk na ci leneen may bis bi sëriñ ngi leen ci sant sëriñ Fallou di santu ñi ci sa ginnaaw ñëpp ci njaboot gi di rafetlu jéego yi ci turu sëriñ Cheikh waaye di ñaan yàlla sàmm leen barkee leen dëgëral leen di leen wax nag waqul yamalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun wa sa turaddoona ila aalimil gayb wa shahada fa yunabbiukum ma kuntum taamaloon ab jullit foofu lay nekk xam ne dara du réer ëllëg nañuy góorgóorlu ci lu baax mel na Sëñ Abdou ñoom ñii ak sëñ Omar ñi nga xam ne saa booy fàttaliku seen lépp lépp luñ nekkoon mën nga ko waxtaane lépp luñ nekkoon mën nga ko waxtaane loolu nag lu mat bàyyi xel la ndax bis nga ci bis yi suñu borom nee na mooy yow ma la saraayir bis boo xam ne bu dikkee mbóot yëpp ay wuññu lu waaye doon làq dana feeñ kon na jéem a làq lu am njëriñ sëñ baa ngi sant ñëpp di ñaan yàlla jataay yi bari lool te lépp di ngërëm bépp kàddu guñ nekk njariñ doon yiwu dolli ko ci seeni xéewal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane ci kàddu yu am solo yooyu kon ni ko wax woon rek kon nañ may délégation bi nga xam ne moo ànd ak sëriñ bi bañ génn ba noppi mbokki ji des doo ko doo ko doo ko génn ngir yëf yi am ab organisation. kon bu waaw kon ñu tàllal loxo yi sëñ bi def ñaan bisimilah. mbokk jullit yi mbokk talibé ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Cheikh Amadou Mbacké xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabootuk Serigne Abdoul Khadir Serigne Moustapha Abdoul Khadir Mbacké jëwriñu Serigne Cheikh Mbacké Abdoul Khadir Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadir jiitu comité d'organisation màggaluk Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem bismillah <coughs> ñu ngi leen di nuyu di nuyu sëriñ Fallu bu baax jataay bi nag li ko sos mooy diggante sëriñ Omar ak sëriñ Abdou Khadir sëriñ Fallu nag dafa roy ci sëriñ Omar sëñ si di roy ci sëñ Abdou Khadir kon bayit yi nii lañu dikkee sëñ Mbàkke soxna dafa jël nag soxna maam Faati Gay mii mu nekkoon soxna su baaxu baaxin mu am sëriñ Omar Omar a jur sëñ Mbàkke ak Fallu Omar sëñ Fallu mii jëf na lu rëy ca Thiel ja ca diggam ak sëñ Seex ma woote ma woote Thiel ja sëñ Seex dafa woote Thiel ji ñëw ca dal ba di sant si sëñ Fallu ba mu toogee ca lal ba mu ne lal bu doomi sëñ Tuubaa toog doomi sëtub doomi sëñ Abdu Xaadir toog du ma ca toogati ba di toogaatu ci lal ba kon kooku roy na baayam ci pësteef ba ak taalibe ga sëñ seex da daa ñëw keroog ca dal ba sant si leen ba noppi toog ca lal ba sëñ Fallu daal ne day araama lal ba ci jëmmi boppam duutu toogaat lal ba seex du Xaadir doom ca toog ca lal ba man Fallu sii du xel ma toogaat lal ba sëñ Fallu kon pëstéef ba woon ca baay ba moom lañ ko roof moo tax mu gàntal lal ba sëñ Sidi mii ñu dénk nag màggal gi ci ndigalal sëñ seex mu ñëw sa kër gii ànd fi ak bokk yi ak taalibe yi jagleel la bis lii neex na gaa yu baax yii neex na sa baay neex na sa maam neex na itam Seex Abdu Xaadir neex na sëñ Bàmba itam képp ku teew fii yàlla na am ak njëggal te gudd fan ëllëg mu mucc ci mbugal ci barke Seex Bàmba te may xayral waraa xéewal gu rëy te mucc nag ci sawara asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ñu ñu maase tàll loxo yi sëriñ bi def ñaan. amiin amiin amiin amiin jërëjëf raayoo leen Mbàkke góor ak jigéen daairatu muhassasatu lëkkale ñi satoo ci sëriñ Mbàkke soxna njiitul sëriñ Fallu Mbàkke moom Baye Touba Mbàkke sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyóon yi sëriñ soxna ak njabootam sëriñ Moodu màggalu Serigne Abdoul Khadr Mbacke gi ñuy amal altine benn fan ci weeru août 2020 bu ñu leen ubbil ci Dakar Sacré Cœur 3 di jàngale alxuraanul karim ba ngeen mokkal ko ci njàngin wu leer te sell yéen ñi yor seeni doom nekk ci bitim réew bëgg ñu ñëw fii ci Sénégal jàng alxuraanul karim ci bërëb bu am kaaraange set te sell am toppatoo jëmee ci xale yi wala ngeen bëgg seen doom yi jàng kalamay français arab ba ci anglais Al Azim académie am nañ fa ay jàngalekat yu xarañ lool lool am expérience ci wàllum jàng ak jàngale njàngum alxuraanul karim gi day ànd ak njàngum fiq ak lépp lu jëm ci wàllum diine njàng mu wér ànd ak yar xale bi ci àddina ci daaray internat bu am kaaraange set xale yi di dëkk ci ay chambre climatisée ay lal yu confortable di leen fóotal fóot mu set boole ci ñuy def tàggat yaram yéen yi bëgg seen doom yi jàng alxuraanul karim ci vacances yi Al Azim Academy day organiser deux mois cours de vacances ci mois ak septembre benn weer wala ñaari weer yépp ci njàngum alxuraanul karim wala langue yi moo xam anglais la wala français yéen ñi nekk ci diaspora bi bëgg indi fii seen doom ci Sénégal ngeen bëgg ñu maîtriser français wala anglais laataa ñuy dugg école Al Azim Academy ñoo ci mën jàngal xale bi langue yi bañ maîtriser ko am nañ fa aussi salle informatique di leen jàngal lépp lu jëm ci xarala yi ñëw leen gaaw inscrire seen doom yi ndax nombre de places yi dañ ko limité 15 élèves rek la ñuy njàng mi nekk njàngum qualité ñëw leen gaaw Al Azim mi ngi ci Sacré Cœur 3 immeuble 9496 jokkool ak ñoom ci 77 778 25 25 bu la neexee nga bàyyi leen ci message par WhatsApp wala 33 822 53 53 ñëw leen gaaw ndax nombre de places yi doon ko limité. Al Azim Academy di école bu ñu leen ubbil ci Dakar Sacré Cœur 3 di jàngale alxuraanul karim ba ngeen mokkal ko ci njàngin wu leer te sell yéen yi yor seeni doom nekk ca bitim réew bëgg ñu ñëw fii ci Sénégal jàng alxuraanul karim ci bërëb bu am kaaraange set te sell am toppatoo jëme ci xale yi wala ngeen bëgg seen doom yi jàng kalamay français arabe ba ci anglais Al Azim Academy am nañ fa ay jàngalekat yu xarañ lool am expérience ci wàllum jàng ak jàngale njàngum alxuraanul alxuraanul karim gi day ànd ak njàngum fiq ak lépp lu jëm ci wàllum diine njàng mu wér ànd ak yar xale bi ci àddina ci daaray internat bu am kaaraange set xale yi di dëkk ci ay chambre climatisée ay lal yu confortable di leen fóotal fóot mu set boole ci ñuy def tàggat yaram yéen ñi bëgg seen doom yi jàng alxuraanul karim ci vacances yi Al Azim Academy day organiser deux mois cours de vacances ci mois d'août ak septembre bu leen neexee jël benn weer wala ñaari weer yépp ci njàngum alxuraanul karim wala langue yi anglais la wala français yéen ñi nekk ci diaspora bi bëgg indi fii seen doom ci Sénégal ngeen bëgg ñu maîtriser français wala anglais laataa ñuy dugg école Al Azim Academy ñoo ci mën jàngal xale bi langue yi bañ maîtriser ko am nañ fa aussi salle informatique di leen jàngal lépp lu jëm ci xarale yi ñëw leen gaaw inscrire seen doom yi ndax nombre de places yi dañ ko limité 15 élèves rek la ñuy def ci classe bu ne ndax bëgg enseignement di njàng mi nekk njàngum qualité ñëw leen gaaw Al Azim Academy mi ngi ci Sacré Cœur 3 immeuble 9496 jokkool ak ñoom ci 77 25 25 bu la neexee nga bàyyi leen ci message par whatsapp wala 33 822 53 53 ñëw leen gaaw ndax nombre de places yi dañ ko limité. Al-Azim Academy di école bu ñu leen ubbil ci Dakar Sacré-Cœur 3 di jàngale al alxuraanul karim ba ngeen mokkal ko ci njàng. sëriñ bi daana leen jàngaloo ay téere yoo xam ne danaan leen na ngeen ko tàmbalee ca. Euh, der bu njëkk ba ba ca der bu mujj ba na ngeen ba jeexal ko waaye bu dee bu dee bu dee wattu geeg ñàkk gee fàtte maa leen ko warlu loolu bu bu leen ko warul doon bu bu fekkoon nekkul ni moo leen ko warlu mhm. fekkee ku am yitte dëgg dëgg te bëgg xam-xam bu nekkee ci bii abu mel noonu nga xam ne bii ab xam-xam la mhm. faw dana yokk xam-xam mhm. kon euh, ci gàtt daal ak njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp rawat na Cheikh Mouhamadou Moustapha ñooñu nit xam-xam mm-hmm. la ca gën a euh, doy firnde rek mooy li ñu ci bàyyi ci ay xasaayid boo mm-hmm. la yoo xam ne nit ki bu koy jàng mm-hmm. da gis ni kii boroom xam-xam la waaye du koo xam kuy sukkandiku ci am xam-xamam jëfinam ak ni mu nekkee woon ak euh, Sénégal gépp da gis ne lépp ci xam-xam la ko teg kon kooku dañ ko jaarale fañ ko war a jaarale mu nekk ak waajuram diggante bu yàgg boo xam ne daanaka li mu taqali ko moom bëriwul waaw kooku kon kon suñu fallu kon xam waaw macha allah sëñ Mbacke macha allah macha allah hmm. eh, ñu ngi am solo ci Cheikh Fadil hmm. rawatina laal ci li sëñ Cheikh naa waxoon léegi hmm. feeñ jamono wuyu ci lépp ndax boo xoolee moom maanaam bis guddi gi feeñ jamono bi guddi gi gën ci guddi waaw léeg-léeg ñu wax bi mu dee jamono muy Daaru Salaam wérante wuñ ne dëkk yi gën dëkk yi la moom Batu Matam waa juróom itam wérante wuñ ne askan yi gën ci askan yi la ñëw mm-hmm. su dafa awle askan ba jeex mooy bokk bi tamit satu sax mooy ñetteel bi itam ki gën ci nit ñi lañ ko tudd mm-hmm. gën ci nit ñi sallallahu alayhi wa sallam

اسم اسم اسم اسمه يراد waaw loolu sax jël na ko ci ci ci ci turando boobu macha allah. kon day mel ni suñu soxna. suñu ëpp baraka wax ci jaar-jaar yi ci xam-xam. day mel ni xanaa ku jaarale foofu def faaw bu doon bu doon xam-xam. waaw koy macha allah comme ni ko suñu ëpp baraka leer la ñu koy sant bu baax. Mm-hmm. moom it wax dëgg di jàmbaar lool di. xam naa na ci alxuraan ndax day mooy mhm. moo tax xam naa xaw na cee ay loo am la leeral nag loo xam ne jar naa leeral ah, waaw mi ko moo tax ñu ko maîtriser macha allah comme ni ko ni ko waxee rek sëñ Fallu moom daa doon xam ne mhm. jaar faaw mu am xam-xam mhm. ndax koo xam ne sëñ mbooloo dalal jàng gannaaw ba nga jaar ci sëñ Ndaam Abdourahmane jaar ci borom daaru ma sëñ Mamoor Jaara ak sëñ Bàkke Buso ñoo yaakaar naa kuñ jàngal moom faw nga am xam-xam moo taxoon mu nekk mu nekk géej mu nekk koo xam ne xam-xamam foog takk weesu na ko euh, bu ñëwaatee ci alxuraan ji damay firndeel la suñu boo wax léegi rek ci ni mu yitte yitte woo woon xiraat yi euh, naaru gànnaar bi ñuy wax bi waay na ko wax ne suñ daam moo ko jàngal waaye jàngale ko ci raaye riwaayatu warsh an naafi am waaw loolu wax na ko ci ci bayit wax ne euh, wax na ko ci bayit wax ne a a qad axada a fi fi samani an alimami abdirahmani muqri xutrihi bila mudafii ala tariqati alimami nafii kon loolu mooy firndeelu si ne di wax léegi kon ci li waaye de war sa la jànge euh, ci sëñ daama abdirahman gannaaw bi jaar na ci borom daaru moom it jàng fa lu bëri euh, donte donte mënuñoo wax xëy na yan teer la fi jàng waaye jàng na fa ay fànn daal yu bëri gannaaw bi dem na ci borom daaru dem na ci maam Thierno sëñ maam Mor Diarra jàng fa xam-xamu tawxid ak ak naxaw euh, wax nañ ne moo ko jàngal euh, Alfi ibnu Malik ba ci baabu naat loolu Sëñ Fall moo ko nettali euh, ci ay nettaleem gannaaw dem na ci ba dem na ci Sëñ Mbàkke bi su moom it jàng fa ay fànn yu wuute ndax Sëñ Mbàkke daa nekkoon koo xam ne xam-xam dafa yaatu rawat na rawat na xam-xam yi nga xam ne daa xaw ci jamono ji lu mel ne ilmu rasm bi wax léegi ilmul falak ak yu mel noonu ak ilmul mantiq ak yu mel noonu nga xam ne ak lu mel ne balaa yooyu si suñ mbàkke mi moo ko jàngal suñu fàllu kon defe naa bu ñuy lim borom bi faaw ñu boole ko ci ndax fànn yooyu day fànn yu xawaraat ci gox bi ñu ñu nekk muy Sénégal gannaaw bi ni ko waxee bi suñ bi nekkee Mauritanie dem na fa it euh, ànd ak si mbirum sufa waaye foofu naar gànnaar yi bu na xam ne ñoom xam-xam ci ñoom la yem moo tax bi mu àggee li mu amoon li mu amoon ci xam-xam da gën a yokkaat ndax jaasoog naar yi euh, tax na mu gën a yokkaat xam-xamam ba bi mu euh, bi ñëwaatee feeñ na ci ay mbindam. mu bu njàngee xasida xëy maanaam ñu agsi ci. da gis ne euh, taar bi ak rafetaay bi foo ko takk weesu na ko. kon xam-xam suñu fàllu moom defe naa du lu ñu du lu ñu du kenn di sikk sàkka. muy koo xam ne nag gannaaw bi mu jàngee ba xam daa bind. bind yi nag mën naa aju ci ay xasaayit. wala ay xutba wala ay ndénkaane wala ay leetar yu ci bëri eh, njaboot gi am nañ ko mooy mbind yoo xam ne boo ko liiree rek da nga xam ne kii eh, jàng la te jàngatuwut nag boo ko ne li fi ne ak mooy soo masaa ñëw way ak mu toog lay toog xalima wëlbati tontu la waaw loolu lu yéeme yéeme la xam ne yow mi waay moom xëy dem waajal sa xasida ba mu taaru nga ñëw ko waaye boo ñëwee day bind ci même baxru bi nga waaye ak même xaafiye bi ak wasnu bi yëpp lay ay sàmmanteel naka noonu la mënoon la ñuy wax irtijaal nga xam ne dara day xew rek ci sensé mu bind xasida wax nañ ne bi sëñ jaar Diarra génne àdduna daa fekk mu war ci aw fas waaye bi ñu ko waxee rek ci la jël xalima gi daal di bind baydi yooyu ñu xam nga xam ne ci sëñ Mamour Diarra la ko def muy baydi yu neex yoo xam ne moom it yéeme na kon daal xam-xam bi moom foo ko takk weesu na ko waaye it euh, noonu noonu maa mi xam-xam ba tax na naar gànnaar yi daawuñu ju mm-hmm. wax na ne ci këram gii amoon na bërëb boo xam ne da koo jagleeloon naari gànnaar yi nga xam ne bu ñëwee fa la nekk ñoom di waxtaan ak ñoom ci ay masaayil masaayil xam-xam yoo xam ne yu xóot la loolu it euh, lu am solo la nekk gi mu nekk xalifa it loolu teewu ko na teewu ko na di di wax nañ ne foog ma fekk ñaareel bu fekkee yërul alxuraan di jàng mu yor teel di liir margare li muy nekk mag ak ak xilaafa geeg xat yëpp teewul mu daan liir daan yër kon ma xam-xam moom ah, am ci woon yem amu ci woon yem kaay kon daal euh, géej la woon boo xam ne daal bu ñu doon topp mën nañ fee fanaan kon xam naa dañuy yem foofu bi ñëwaatee ñu gën a yokkaat insha allah taala macha allah si jàll ñëw nga ci lu yaatu ci xam-xam bi day mel ni lii sëñ Abdou Baraka wax ci jaar-jaar yi jaar dafa am ne maanaam kuy jàng dala xool ñi ngay jànge ndax euh, diwu ko jàngal rek day ah, am na xam-xam dëgg dëgg maanaam man taallama dina ko du waxal mm-hmm. kene suñu wax dama bu koy kuy jàng koy jàng koo xam ne mu àllim la waaye mu xàqit la léegi moom ñu jaar ko qualité yooyu defar ci waaye feeñ na ci moom itam nag ci njàngam ndax boo xoolee ñu wax bind li bind waaw dese ñëw ndax loolu ci xam-xam dañuy wax ne xam-xam ñaar dañ naan ku la jàngal dina wane sa xam-xam ak loo def ci xam-xam loo def ci xam-xam xam loo ci def nag bokk na ci ñu ñoo jàngal ak loo bind yooyu day wane day wane si xam waaye ak say jëf itam da koy wane waaw day mel ni kon bu ñu borom xam-xam la kon suñu abo des na ñëw ci lenn ci maanaam lu lu wane xam-xam loolu la suñu fàll borom xam na naa noo euh, ziyaarat bu baax a baax tabaarakallah tey rafetlu euh, waaw Cheikh Mamadou Fadal euh, bokk na ci rek liy wane ne boroom xam-xam la mooy jaxasoo gum daan jaxasoo borom borom xam-xam yi. te ni ko sëñ Cheikh na waxee léegi naar gànnaar yi nga xam ne daawuñ doyal ci moom. te euh, fu ñoom ci xam-xam. waaye bokk na ci euh, liy wane ne borom xam-xam mooy bind yi mu bind bàyyi fi mm-hmm. euh, am na diiwaan bu mat boo xam ne euh, bàyyi na ko fi xasa yu rafet rafet yoo xam ne mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne jot nañu koo gis ci moom mm-hmm. bokk na ci rek ci diiwaan yaa raiman misla misla cheikhi mahran falasta taraahu xasid ak yooyu nga xam ne day wane ne kii borom xam-xam la boo xam ne diifu am lefam <laughs> sori na lool waaye waaye waaye waaye bokk na ci rek liy wane ne sëñ Fallu borom xam-xam la mooy mm-hmm. jëflante gu mu daan jëflante mm-hmm. waa mm-hmm. ci wàll yëpp am na ci genn jëflante xam ne nii ku amul xam-xam munoo ko ku amul xam-xam munoo ko euh, ndax ànd ak jaar-jaar yim jaar yëpp ci ay jafe-jafe ginnaaw laata ginnaaw bi sëñ bi jógee fu ne mu jaar fa yoroon ay daara ay al yoroon ay daara ginnaaw mu sañceen ni daara ay daara nekkoon fa euh, mu daan gàggante nit ñi ci xam-xam daan jiite nit ñi ci ay ay seen i julli ci weeri koor yeeg daan leen jiite ayit yi daan def ay xutab yoo xam ne nii euh, xam naa am na ci yoo xam ne sëñ si yaxna ci ñëw xutab yu am solo yoo xam ne lépp moo ko daan bindal euh, nit ñëw seet ko mu bindal la loo xam ne tabarakallah da xam ne kii borom xam la li may nettali ci euh, li sëñ Cheikhouna di leeral léegi luy war a ne sëñ Fallu borom xam-xam la mën naa ci nettali benn nettali bu gàtt gàtt boo xam ne euh, rahmatullahi alayhi mursid Ayaan Caam moo ma ko nettali damaa dem këram ñu waxtaan ci wàllu gi siñ Fallu xam-xam mu war ma ci firnde joo xam ne dane ma yow de binaaw bu ñu nuyoo ba noppi ba ma présenté wu mhm. dane ma ah, yow de moom gan nga koo xam ne nii bég naa ci sa teewaay tey mhm. ndax sama am kat damaa am ak moom fajar goo xam ne mhm. du ma ko fàtte mukk sama dund dafa mas a bind ab maqaal boo xam ne benn euh, ab article boo xam ne ko bindoon Euh, ab majal la bu nekk Maghrib. Hmm. ñoo ko tasaare woon. Hmm. ba tey maa ngi ñëw ci firnde ji wan ne sëñ bi Kuraan jàng la ginnaaw bi nga xamee ne. Hmm. nekk na fi ak li noonu mag lépp. Eh, nee na ginnaaw suñ fallu ginnaaw bu ma mësaan julli fajar ba noppi. Eh, bokk na ci waxtu yi nga xam daana ko recevoir gan. ci suba teel gi noonu luy léeme mhm. gis naa ci kilifa yi koo xam ne mhm. eh, xamee naa ko ko ci njabootam gi nga mhm. eh, xam ne am na waxtu yoo xam ne ni moom ginnaaw fajar ñaari saa yoo demee boo ko bëggee gis gis bu yaatu boo demee gis ko eh, mu ne dañoo julli fajar ba noppi ñu wooñu nañu sëñ bi nee na ngeen ñëw ngeen jàll si ñu dem nuyoo ba nuyoo ba ñu agsi ci man mu laaj ma ma ma ma présenté wu. Mm. mu ne ko man maa ngi tudd Ayane Thiam. Mm. nekk eh, yaakaar naa jaamia islamiyya la nekkoon booba. Mm. xaw ma eh, xaw ma xayra. xaw ma xam naa daal mu ngi woon arab saudi dara xaw ma jaamia islamiyya xaw ma umul qura. benn la ci nekkoon xam naa dama dama dama fàtte jàpp ju ju nee na mu téye sama loxo. dama yow Ayane ma ne ko waaw daal di yónnee ci biir néeg bi. am ko wane ko demal boo yëkkatee ngeen ko naan lay am na téere bu fa nekk nga yóbbu ko. am ma jàll. nee na kooko dem yëkkati nga naa fekk ko fa. Hmm. di ko jox mu ne ko ubbil. mu daal di ubbi déedéet di wax ko ubbi sax dana ko da koo jox téere ko jàngal loolu loolu de xanaa yaa ko bind mu ne ko waaw mu ne ko jàngal ma dégg nee na ma jàng di jàng di jàng ba àgg ci ab faqra benn phrase boo xam ne dama ko jàng mu ne ma taxawal mm-hmm. ma taxaw mu ne ma jàngaat ko <laughs> nee na ma jàngaat ko mu ne ma loolu de wurusu ngalam la ngir tëggin mu rafet <laughs> léegi daan daan daan na ma nag loolu man la ma ca jànge lu bëri mm-hmm. la ma ca jànge mooy sëñ bi yitt gi mu am mm-hmm. mooy gaa jàpp gi mu jàpp ki bind maqal bi ak waxtu yi mu koy jàng ak xam gu mu xamoon ni maanaam ba mu nee diw sàngam demal ci biir nga yóbbu ma téere bi kon lool mooy waral ni da ko doon liir loolu loolu liy firnde la bi daana daana daana daana jàng lu bëree bëri daan ku fonkoon yër la loolu li mu fi bàyyi ci ay kaggu rek tabarakallahu kenn xamul nu mu toll waaw waaw xasidaam yi nga xam ne moom la def rafetaay bi foo ko takk tabarakallahu jéggi di dayoo yi nga xam ne léeg-léeg xasaay yi nga xam ne da ko daan irtijaal ni ko sëñ bi waxee léegi nga xam ne euh, daa fees dell ak ya ibar euh, mën nañ cee tànn genn rek mooy yaa ayyuha shaykhun nafisul murtajaa bi nga xam ne moom la moom la bindanti woon sëñ bi te muy xasida koo xam ne bu jara jàngat la uh-huh. euh, ndax la ci nekk ci ay nazaat suufiya uh-huh. la ca nekk ci ak ak taalu bi la ci nekk ak lépp te teewut tabarakallahu foo ko natt ci xam ko weesu na ko ya ayyuha shaykhul nafisul murtaja eh, yaa fatihan ma ma qablu kaana murtaja ba xasida ko ba xasida ko jaax eh, dem ca ba ak biatu bu nu wasiya bil irada lakum kay oxva bi farqa eh, yooyu ay xasaayid la yoo xam ne ak yi bind yoo xam ne ñaare ko amul xam-xam bu mu ko def waaye jaxasoo gi nga xam ne daana ko jaxasoo borom xam-xam yi ñun ñëpp ko doon seet si. Cheikh Tidiane Sy. dana ci nettali lu bëri. xam ne dara ñëw ci sëñ bi daaw fi jug. te loolu ñaari ku ku amul xam-xam rek mënewu daan leen teral. ndax mbir ku ko bëggut. doo teral borom. ndax naar gànnaar yi dañ ñëw ñoom mu leen daan daan ko def na ko sëñ bi daan defee. loolu xam-xam fonkoon xam-xam bëgg xam-xam moo ko war loolu. daan génn ay nit ñuy jàngi. loolu lépp ngir bëgg xam-xam ak fonk bu mu fonk kon daal euh, sëñ bi liy firndeel ni borom xam-xam loolu lu lu lu yaatoo yaatu lu te bëri lool tabaarakallaahu am na ci ay xaslit ak yoo xam ne ni xam naa sëñ sëñ Cheikh Ousmane dana ci dana ñëw ngir ngir ko incha allah alhamdulilah hmm. macha allah sëñ ci jaaraat gu am solo boobu nga jaaraat lu am solo muy diggante sëriñ Cheikh Amadou Fadel ak ñun fonk ak xam-xam hmm. yaakaar ne eh, xilaaf la ñu diis ak duñ la may jàmm. waaye teewul sa diggante xam-xam moom. ba tey dogut. tool yaa ngi jàng yaa ngi liir la nga mokkaloon te ba nga doone ndaw tey nga ko gën a mokkal. fàtte waaye na ci li wane xam xam-xam rek mooy mokkal alxuraan wér. te xam te xam firin bi. waaw firin yu gàtt gàtt te bokk na ci. ñu may fàttaliku. ñu nettal ñu ko ne lenn ci tubaab bi mos ñoo ñëw ñoom doon ko seet si. doon ko laaj ngir gis guñ gis capacité bi ni kaweek. ba dañ ko am ko mos a ñëw laaj ko laaj ko ne ko léegi. dama la nga wan ma say diplôme daal foo toll ci. <laughs> xam-xam euh, tontu bu gàtt la ko tontu. Mm-hmm. daal di tekk daal di dugg ci biir génn ko daan na daan na ko màgg ko xool ma ko. tey dafa bokk. xam nga loolu rek loolu rek yéeme yéeme la. waaw la léegi loolu fondement la boo xam ne lu ci waay teg rek mu dëgër. wallaahi waaw fondement la boo xam ne te te te tabaarakallah la demee. daan daan daan mokkal li mu daan jàng mu ko daan mokkal. Mm-hmm. waaw tabaarakallah kon nag Cheikh Mamadou Fadal daal. Mm-hmm. ak xam-xam. lef la boo xam ne tabaarakallah. wallaahi yaatu boo xam ne. Mm-hmm. ku ñuy wax Talla Mbaye. daan ko am sa bind sëñ Fallou ab leetar ne ko aktubu ilayka haadi risalati bi ñëwee sëñ Fallou xool ko daal jël xel mi ko ne ko haadi risalata la ñuy wax ñu ko xam nga ginnaaw ab jànkale moom day day day ñëwee daal mu ne faak sëñ Fallou ñuy kii mën naa ko gannaaw bi nag mu dem ca sëriñam ba ko doon jàngal si Cheikh Say wax ko wax ko ni mu yëf yi demee daal sëñ bi ne ko sëñ Fall sëñ a da ko tari aw bayit ngir firndeel ko ni mu wax daal wane ne ko li li ma la wax nii li la demee nii la ñëwee ci tere naxaw yi waaw <laughs> ah, mooy way way way na attaque asmul muarrafun bi al Euh, baadal baax fa naxdun aw badal aw badal nga xam ne kon leeral na ko ne kon hadi risalata la ñu war a wax léegi bi demee ci sëriñam nag nettali ko woo sëriñ bi yëm ko lool nag ne ko suñu Fallu fekkee moom mokkal bayu di ba léegi moom kon réew moom moo fi ëpp xam-xam ko waaw kon i sërnil waaw suñu soxnaa yi ñëw directement rek ci lenn ci maqaala wala am xam ne Cheikh Amadou Fadel euh, def na ko ah. a firndeel maanaam mm-hmm. xam-xamam yooyu yu bari bëri la mën nañ cee tudd yan rek mm-hmm. comme ni ko suñu ëba leeral léegi mooy bi muy jaayanteeg sëriñ bi mhm. xam nga loolu mi ngi amee woon ci Ceyeen mhm. sëriñ bi daa mas toog benn bis mhm. euh, mu woo si Fallu sëñ Moustapha sëñ Mor Roqi bis ñeneen wala leen kat li fi nekk moom nekkut lu ñu maye lu ñu jaay la nee nag li li njëg mooy ngeen joxe seen bopp ci boobu la ñoom ñëpp joxe seen bopp nag waaye sëñ Fallou da koo firndeel ci xasida mooy xasida gi mu tudd léegi yaa yoo Cheikh na fi sul Murtaja te loolu mi ngi ko def gannaaw bi ñëwee njaareem la ko bind jox ko sëriñ bi waaye xasida googu boo ko di jàngat da ngay gis taar bi ci nekk. Hmm. Euh, nga xam ne kon day wone xam-xam Sëñ falu ak ak mën a wayam. Hmm. waaye it am na benn xasida moom boo xam ne daf koo def di ci tagg sëriñ bi di ci feeñal ak cofeelam. Hmm. moo tàmbale ci mahabbatu cheikhi fi sirin wa ilaani adirat fadaila fi sirin wa ilaani xam ne xasida gu yéeme yéeme boo koy jàng xam ne day feeñal ni mel ci sëriñ bi ci cofeel dem dem na bay wax ne ci benn xasida it boo xam ne day wax ne waaw ci boobaa ci biir xasida boobu sax day wax ne xubbi lahu dahra qad afna dumuaya id xubbi lahu xubbi jamian wara la shakka ansaani a ma ne sopp gi ma sopp sëñ bi daal dem na ba fàttaloo ma sopp dara lu luñ mi def maanaam dara mu tudd bëgg bi muy xasida gu yéeme yéeme eh, naka noonu yéen am na xasida gu way di ci eh, di ci tagg sëriñ bi moom it xasida guñ guñu xam la moo tàmbalee ci Euh, yaa sayyidan fil maali xala sarwaahu mm-hmm. moo boobu wax nañ ne bi mu ñëwee ci euh, barabu sëñ bi di siyaare ci mm-hmm. ci la ko waaye comme ni ñu waxee woon léegi nga xam ne moom day ñëw rek ci sens rek lay bind xasida mm-hmm. yaa sayyidan fil maali xala sarwaahu inni ataytu li wajhillahi zairakum abghi bihi nayla ma arju wa ahwaahu xam kon boo gisee taar bi day da nga yéemu naka noonu it am gum yu muy yoo xam ne dañuy marché ay kilifa wax naa ko léegi sëñ Maamor Jaara Euh, def na ko def na ko xasida gum gum commercial mm-hmm. moo tàmbalee a hiya dunya fa in sarataka yawman fa inna al huzna aqibatu sururi muy xasida gu yéeme mm-hmm. naka noonu la waaye la sëñ Masamba it it mm-hmm. bi fi bàyyi ko Masamba kaana mufidal mustafidi wa munjal wa manjal mustaqidi ida man nas qad xaatu muy xasida gu moom gu yéeme yéeme kon daal bi ki doon topp sëñ Seexuna mën nañ cee wax lu bëree bëri naka noonu it xasida gu yéeme goo xam ne mi mi mi mi ngi ciy ndokkeel sëriñ bi gannaaw bi jumaa ji àggee ñaari bayit la muy kamaa xun kamaa xat kunta taamulu ya xadima bi hunita fi daari naami naka noonu sëñ Ibrahima Bousso moom it nekkoon nijaayam di doomi sëñ Bousso be moom it sëñ Fall waaye na ko eh, ay bayit yu rafet rafet moo tàmbalee ci sami yu xalilillahi xayru xalili wa bi lahu ma ajtu xayru xalili moom it xasida googu neex neex la eh, kon daal bu ñu ko toppee woon noonu ala inna nii wa in kathurat fuduli fa lastu bi faa'il ila al murwa eh, xasida gu yéeme yéeme la waaw oh, <laughs> waaw mi ngi waaw gu yéeme yéeme sax naka yaara ay ma mis na cheikh ma xalal fa lastu taraahu moom it gu boo xam ne da ciy tagg sëriñ bi di ci wane ay ngëneel am ak yooyu naka noonu bi mu demee daaru maxti yi ci borom daaru ataytu ila ilal mexdaay fii daarihil muati li li yushkiya euh, shakwal xabdi minia bil basdi xasida gu rafet rafet naka noonu bi bi ngi si mënu Mustafaa di sëñ ci Taayif da ko yëgaloon sëñ Fallu ñëw ca euh, sëñ bi jox ko ndigal mu tudd mu tur bi ci la defee ñaari bayit yi yaa taayifan yaxsha nawaayib dahrihi lus bil xalifati Mustafaa fi taayifi kon daal sëñ euh, seexu na lu guddi guddul loo xam bi nga toppoon mën naa yóbbu waxtaan bi yëpp day day wane ak bëri xam-xam ak mën a waayam naka noonu kon daal si xam naa man sax kon daal suñ fallu moom. jàng na xam na ko war a xam waaye moom lay bàyyi. xam-xam la koy firndeel. te it bind na bàyyi fi. ndax dañuy wax ne sax moom. ma mënoon naa loolu waaye ngi ngërëm waaw war na wëy waaw bind lu bëri waaw waaw bi nga waaw waaye bu fekkoon ne waaw kay waaw maam waaw waaw am ak teg nit ñi sax muy bind lu bëri daanaka li li mu a way lépp teewut ay mbindam daanaka tax ko bëri loolu waaye nag moom lu mënoon mën na ko way gaa yooyu yëpp mën na ko way waaye teewut uh, ngir romancé bi moo taxoon mën na ñëw yem foofu bu ñëwaatee incha allah jërëjëf macha allah macha allah boo xoolee ci way yi hmm, hmm. maanaam uh, mbooleem xeet yi ñëw yëpp daanaka suñu fàllu waaw waaw maanaam boxoor yi nga xam ne waaw mi ko waaw naka noonu axraad yi waaw waaw axraad yi ah. waaw al ibtihaan wa tawassul waaw mi ko waaw tahniya ziyaara mm, ziyaara waaw al itaab mm. al musaajala al mubaaya al mm. wasf waaw lu ci ne rek def na ci def na ci ay ay xasaayid macha allah loolu la am solo loo xam ne maanaam feeñal na Cheikh Mamadou Fadel dëgg dëgg xam ko macha allah eh, kon ñuy ñëw rek ci ñaa ñetteelu tomb bi te mooy digganteem nag ak kilifa yi jëm tàmbalee ci mbokk mi nga xam ne ñoom bi ci yoonu murit te ku yëpp maanaam ku yaatu woon relation ci réew bi ba bitim mm. nga xam ne ñoom la bokkal nag fii sëriñ bi doo ko eh, eh, mm. euh, mm. euh, buñ bëggee wax euh, relation bi nga xam ne moom la amee woon ak adduna mhm. dañ koy tàmbalee ci wax ne dafa bokk ci jikkoy nit ku baax mhm. mu fonk kóllëre mhm. waaye kóllëre da caa bokk min xusni islaamin mari ni ko yonent bi waxoon daan ne euh, abu kama xala sallallahu alayhi ba ne bokk na ci nit ku baax mooy mooy mooy muy muy muy sàmm wudda abiihi euh, dama teewlu xaritu ba sallallahu waxee woon waaye sëñ bi Cheikh Mamadou Fadal ku fonkoon euh, nit maanaam adduna bépp la woon mm-hmm. maanaam relation bi mu amoon ak adduna mm-hmm. relation bu dëgër dëgër la woon mm-hmm. te daa bokk ci lii wane jikko ju rafet mooy nit ki di jokk ak mbokk jokk ak mbokk nag daa daa dañ koy wax te ñu bëree bëri duñ ko dégg waaye doy na ci rek buñ koy leeral mooy na ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon dane woon sil man qataak oh. sil man qataak loolu mooy jokk bokk dëgg ah, ki nga xam ne bu la jokkee nga jokk ko bu la bàyyee nga bàyyi ko oh. loola jokkoo oh. da ngaa fayu rek da ngaa da delloo rek Cheikh Mouhamadou Fadal ay mbokki boppam ñu koy tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha wala ñu koy tàmbale ci way juróom tëdd eh, bëggoon na ko bëgg koo xam ne yemalewu ko woon dara yemalewu ko woon dara xasiyaay yi nga xam ne moom la sëñ bi doon wax léegi rek da cee doy firnde demoon ba li nga xam ne moo doxoon ci diggante ak way juróom woom yi da koo jël teg ne te te te jël alaaka bi nga xam ne mooy bi nga xam ne moo taxoon a jub sëriñ bi te mooy ak iraada doxale ko ci diggante ak sëriñ bi yaa jaatu bu nu watiya bil iraada lakum li kay uxdaa bi xarqi aada min baadi ma staqba ma qabiltum wa min ni ahdaytuha lakum bi xayri man nga xam ne daa dafa jaay la nga xam ne moom la amee woon ci sëñ bi te mooy lu ñuy tudd ak njureel mm-hmm. ko jëndee na ko ak talu bi mm-hmm. loolu am na alaaka bu muy wane mm-hmm. mooy kii digganteem ak sëñ bi kon lu dëgëroon la jaxasoo woon nag moom jaxasoo koo xam ne dem na ba wóolu ko ba mu ko lépp far la nga xam ne moom la gënoon moom la ñëpp di di xënte woo mu ne man jaay naa loolu te wut li nga xam ne nag mooy li nga xam ne moo tax a jug sëñ mooy ak irada ginnaaw bi nga xam ne jotaay bi sëñ Cheikh la nekk léegi jotaay ba amoon seen diggante waaye la xorom dafa ci nattali lu yéeme mooy lakum li kay uxwa bi xarti aada gi mu wax mm-hmm. daa mel ne ginnaaw bi Cheikh mm-hmm. Abdoul Fattah mm-hmm. moom Cheikh Abdoul Fattah yàlla na ko saa borom sàmm guddal aw eh, borom njëwri suñu Cheikh Abdoul Fattah ku baax a baax la ko ziyaar ji dat koy bindal xasi rek yaara iman gis la Cheikh yi dat ko bindal ci ab tableau bu rafet dat ko jox ndax bi ma ko joxee mu jàng ko jàng ko jàng mu yëmaan ci ak bëgg suñu jaawam de daal di tari xasida ko yaa yaa ay yoo seexu nafisu ba mu jeex def def tekk def dën dën mu ne moom ne li kay ox zaaka sax da koo tuub <laughs> li kay ox zaaka da koo tuub <laughs> ngir ne ginnaaw ne waaw <laughs> charte am na taxlil nga am waaw daanaa daa dé ñuwaa la ko mu rëy na léegi ah, kon da ngay gis ne relation ak sëriñ bi lu dëgëroon la loolu nag fi la nit di tàmbalee mm-hmm. mooy bu ñu nit baax na dañaan ndax mokk yaa ko wax mm-hmm. léegi kon se moom sëñ Fall. Mm-hmm. daa bokk ci wax ju xorom ju mu daan wax. Mm-hmm. daa wax naan man de ku baax laa. man de ku baax laa daan wax. bu ñëpp ne teg mu ne waaw suñ juba ko wax. suñ <laughs> juba ko wax. daan ne kon de ku baax laa kon kooku ginnaaw bàyyi moo njëkk a wax ne ku baax. Mm-hmm. moo njëkk a wax ne ku baax. kon ku baax la. Eh, mbokki boppam yi topp. mooy ku mel ne Cheikh Mouhamadou Moustapha. diggante ak Cheikh Moustapha ñoo defandoo lépp. jàng jàngoon alxuraan. ginnaaw bi suñ nekkee ñoo taxaw noonu bëri ñoo ko taxaw ginnaaw bi mu wutu ko mu wutu ko fi ñu daan demlante daan dikkalante doy na ci sëkk rek yaara iman yaa taifan <laughs> gi gi gi gi mu wax rek ci ba muy tuddi taif ñoom ñaar ñoo sancandoo ay rëkk ginnaaw bi nga xam ne sëñ Mourou Moustapha sëñ Fallou sanc na ta sanc na Ndindi bañ jotee ndigal ci sëriñ bi mu leen di digal ñu dem ngir ñu sanc ay dëkk bañ demee ci sëñ bi sëñ fa loo koy nettali boppam moo ko Cheikh Mamadou Moustapha ñoo dem wax bu ngeen mënee dem ba ca ca wàlli wàlli Touba ya ngeen sanc fa ay tool ñu fa jógee julli nee na Cheikh Mamadou Moustapha moo ne ko kon de sëñ Fall moom am toogat ndax mel na ne jotoon naa sanc foofee ab dëkk nee na sëñ bi laaj ko loolu fa nekk mu ne ko dana lu fa nekk mu ne ko foofu daa mel ne gis naa fa dégg bu tudd ndindi mu ne ko Eh, naroon na ko tudd beneen tur waaye tur turu nit ñi sëñ bi tudd rek loolu na ko far bàkkee ba tudd ko noonu waaye amoon na weneen tur nit amoon na weneen tur kon loolu relation lay wane boo xam ne ñu ñaar ñu fonkante woon daan bindante ay xasaay mm-hmm. eh, loolu ci sëkk rek eh, bay yooyu ko suñ mën mos faa bindoon ko abbu. yaakaar naa <laughs> da mm-hmm. bi ko seeti ndeysaan. suñ mën mos faa mel ne ku ku ku ku fatu. Mm-hmm. ginnaaw ba muy dem. nga xam ne day wane ne ne am solo la. Mm-hmm. ñoom ñaar ko yar. Euh, sëñ Moustapha tudd na sëñ Fallou doom loolu ak yu bëree bëree bëri yoo xam ne dox na fi njaboot bu jaxasoo mm-hmm. day wane ne relation amoon diggante bi mm-hmm. euh, njaboot Sëriñ Tuubaa mm-hmm. rawat na ñi bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp la tuddee doom boo ko seetee ko tomb Cheikh Mouhamadou ci suuf relation ak sëñ Bassirou tabarakallah muy relation yoo xam ne yu rafet rafet waaye relation ci bitti dana ci doy doy sukk rek fi mu nekk ñii may wax ak rek am na ñoo xam bu fekkoon ñu ngi seetaan émission bi te doon ñoo xam ne jàngkat tubaab rek ñu bëree bëri mën nañoo génne dikkrayaat bu ñu am boo xam ne nii man moo moo moo moo seen diggante ak suñu ay fàttaliku yoo xam ne dañ ko joxoon mm-hmm. muy ay photo mm-hmm. gis naa kamil boo xam ne nii kilifaa dox ba àgg ci dëkk dëkk yii ci Kajoor mm-hmm. fekk fa kaayil boo xam ne suñu Fallu moo ko joxoon genn kilifa ci kilifa ki daal eh. muy ab kaayil wax da koo seet si woon aw kaayil ba gis naa mbind mu suñ bind li hmm. kaayil bi li kay li yakuna li yakuna indahu dhikra eh. li yakuna ma <laughs> ah, gis naa ko hmm. nga xam ne day wane relation goo xam ne eh, boole ci it hmm. ñu bëri ci kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo moo nekk ci loolu moom tabaarakallah li mu ci defar kenn xamul nu toll danaan wax naan man moom maay Sénégal loolu wax ju yaatu la julli ji gën a teew suñu xol Cheikh Ahmadou Badawi Cheikh Ahmadou Rafaay yi Chérif Fanta Magu yu bëree ba ci yi nga xam ne tudd na ko tam nekk bi set su jàngi di leen romb loolu naa leen siyaare ba ay si bis rek jërëjëf ñoom ñëpp ña nga ña nga scanner seen i baram ña ki nekk dem naa siyaare ji ko loolu day wane fonk gum fonkoon relation yi relation yi bitam mm. daan ñëw daan màggal si waaw nga xam ne buñ ma màggal gi mm-hmm. dañ daan jógee ay ay fu ne mm-hmm. daan ñëw di ko fekk si ngir jikkoom ju rafet mm-hmm. ngir jikkoom ju rafet ak jëflanteem joo xam ne ni fonkoon na ko digganteem ak jaam yi jaam yàlla yi waaw ba loolu moo ko may lii mu amee ñëpp di ko dégg fu ne jullit beeg kii dul jullit ak kii murit ak kii nga xam ne murit ak ñëpp fonkaloo suñu Fallu ba waxee ñu ne suñu Fallu loolu la ko waral mooy daanaka foo toog rek penc moo toog euh, kenn ci waa penc moom mën naa nettali lu doxoon diggante bu Cheikh Mouhamadou Fadal waaw waaw maa ngi maa ngi dégg léegi euh, Cheikh Mouhamadou Fadal na am jotaay bu mat sëkk boobu lay lay tabarakallahu mën naa jël jotaay bépp macha allah macha allah sëñ baraka tabarakallah nga xam ne eh, leer na fi lu ama am solo mm. relation yi nga xam ne sëñ bi am na ko ak bokkam mm. xam nga bu ñu nit baax na nag bokk yaa ñoo ko ñoo ko ah, wala yëpp xam moom ci bokkam la tàmbali ah, damay nettali léegi loolu maa ngi jégalu eh, sëñ Fall bu ma waxee mag ñi nga xam ne ñoom la maasaloon ci at mm. eh, ñi nga xam ne ñoo féetewoon ak ndaw ci njabootu sëñ bi ñooñu du ñàkk ñu tudd la kañ cay kañ kañ cay cité rek moo ko mel ne Sëñ Saliou Moussa ah moom moom moom daa suñu fan. bëggoon lool. Ah, am na lettre bu siiw bu ñuy gis mm. eh, si suñu Saalihu daan daan daan nekk mbuur léeg-léeg mm-hmm. ba ba ko ba ci ba ci am ngan bu ko suñu Fallu diggoon mm-hmm. ko bindu leetar di ko fàttali ngan nga maa maan ko nag maa maa ngi ñaan nga bu ñu ko fàtt <laughs> daan na ko danaa nekk barab danaa nga daan dal leetar boo xam boo ko jàng mm-hmm. da nga am yëg-yëg am da nga gis ne kii am na mbëggeel ko mbokkam yi denjal boo xam ne ni mu daan def ak Cheikh Mahamadou Mourtada yow suñu Mourtada ma sa ñëw daan jug gatanu ko rant euh, ndax nag nit boobu la mujjee fi barab oh. euh, yooyu <laughs> ah, xol bu set xol xol bu set loolu relation moom ñëpp noonu la mel ñëpp euh, doy na ci rek daal ñu wax ne mm-hmm. kër suñu fal boo fa duggee da fekk njaboot suñu mag waaw góor ak jigéen waaw loolu <laughs> macha allah macha allah kon gis nga nim rek bokk mi Euh, tàmbalee ji comme ñi nga xam ne mën nañu jàpp ñooy kilifa mu sama gis ngeen ni mel ak moom yi nga xam ne ñooy ñoom ñoom jàpp ne mooy seen kilifa itam ah. gis ngeen ni mel kon ñaar yëpp bu ci ne rek ndeysaan boo génnee ci rek fu ci rek moom wax jam waxoon maay Sénégal dafa doon sëkk mhm. loolu doon sëkk firnde ci mhm. maanaam ni maanaam euh, ni mu yaatoo woon am infitaax boo xam ne ñëpp ko ñëpp ko ñëpp ko jëriñoo xam ne moom daal fadl kul bi fadlillahi loolu la amoon nga xam ne eh, loolu moo doon moo doon mbiram kon suñu baraka di ko gaay nettali léegi rek daanaka faw rek da nga dégg mm-hmm. ci bitti rek ngay dégg nangu moom suñ fallu waaw waaw waaw yéen la wax waaw ci jaan suñ fallu suñ <laughs> maamoon nettali daaw déjà suñ maamoon boo xam ne eh, dafa newoon kër gi mm-hmm. eh, ba am baat mi muy dégg. Mm. wax suñu fàll ne ne loolu loolu la nga nekk rek. te fii rek man. waaw ah, <laughs> loolu la daal nekk rek. incha allah ni réew mi ku fi ku fi mën di nekk. Ah. ak la muy yëngu. waaw ah. rëy rëy rëy. dañ la nettali bis bu mu doxoo bu amoon ak sëñ bi. relation laal nga ci sëñ bi laal loolu moo ko doxal. moo ko doxal loolu loolu relation la. fu mbir nekk daal. macha allah macha allah sëñ sëñ sëñ fexu naa. ndeysaan eh, kon ni ñuy ñëw rek ndeysaan gis nga eh, loo dolli ci si Baraka wax. Mm-hmm. dugaale nag ci jikko yi. Mm-hmm. waaw ndax lii mu wax yi fii daal di dugg jikko yi. waaw dañuy am jikko yoo xam ne nag moom dafa làmboo makaarimal axlaaq. ndax mm-hmm. moom wala te digg jikko yëpp ne ma ci ma ne ma ci mm-hmm. ñu am benn benn yoo xam ne. waaw dañ ko tudd ngir mën a nekk bind boo xam ne ñuy topp dañ a jëriñoo. dëgg la jërëjëf am solo yi naa li fi leeral eh, jot na sëkk. kon ngir ngir xëy na yokkaat rek sëñ Fallou moom nekkoon ko xam ne daa mën a jaxasoo ñëpp ak li may nekk doomi sëñ Tuubaa ak daraja jeeg waaye lépp da ko tegoon fi suuf mm. jàppee boppam li doomu aadama yi daal mm. maanaam sa xajoo ñëpp mm. dina wax naa xajoo naa si ne ba nga ba nga waaw mooy foo foo foo jógee foo ñëwee rek dana mën a def ak yow mm-hmm. loolu moo ko mayoon mu mën a jaxasoog ñëpp mm-hmm. ak noo mën a mel mm-hmm. ni ko ko leeralee ci njabootu sëriñ bi eh, ñëpp la jaxasoo woon góor ak jigéen boo demee njaboot këram mu ko fekk ay turandoo moo xam góor ñi wala jigéen ñi te eh, maanaam eh, loolu xa xa xajalewu ci ñi ko féete mag ak ñi féete mag mm-hmm. ñëpp la jàppe woon comme boppam loolu da li ko waral mooy dara xool ci ñoom sëriñ bi mm-hmm. waaw moo tax si motulaa ma ci gën a ndaw sax mm-hmm. wax nañ ne bi mu demee màkka te jumaa ji ñu war koo tijji nañ ko xaar ba ñëw waaw nga xam ne kon suñu suñu nan lañ ko ubbi avance bi motulaa di ñëw waaye danañ nañ ko xaar ba mu ñëw moo tax sax liggéey bi àgg na toog ab yëran ko doo ko inauguré loolu kon day wane fonk fonkoon sëriñ bi waaye it naka noonu ko topp naka la amee at amoon uh, ak jokko uh, ak kër diine ci Sénégal boo xam Tiwaawan la wala Kawlax uh, wax nañ ne sa Abdou Aziz Dabakh daana daana ko gane lu bëri bëri nga bu ñëwee Sëñ Fallu da koy gunge ba ngaabu xam ne moom day bëgg a ñëwaat gunge Sëñ Fallu Sëñ Fallu gunge ba nga xam ne day mujj xaw a xaw a métti ci ñaar ko ci boppam ak cofeel ci wàllaayeen yi wax nañ sax Sëñ Isaa Laay bi ñu génne àdduna suñu fàllu daa def communiqué wax ne murid yëpp nañ dem nañ dem euh, Cambérène ca barab ba ñu ñaanal ko wax mm. ne kon day wane euh, fonk gi fonk nag ak jullit waaw dem jaale ji ko waaw xam ne daa diggal murid yi ñu dem ba Cambérène ca barab ba ñëpp ñaanal ko waaw loolu day wane ne kon ni mu woon kilifa euh, kilifay diine yi naka doon Cheikh noonu meloon moom ñu doon jaxasoo lu bëree bëri yow def naa seen photo yi ñu bëri gis nañ ko seen ni ñu taxawee rek nga xam ne ñaar ñu ko bëggante lañ ndeysaan kenn ku day rey tey tey sa tey tey a gisee ak na ko doom nekkoon borom xam-xam bu mag nekkoon wàliyu naka noonu it bu ñu demee ci yeneen réew yi fi mel ne Côte d'Ivoire. Euh, président Houphouët Boigny moom it euh, Senghor ci moom la relation bi jaaree sañ Sëñ Fallu wax nañ ne daa amoon problème ci tukki ci avion. Euh, bi mu ko waxee Senghor na ko damaa bëgg Sëñ Fallu ñaanal ma. xëy na suñu suñu suñu Senghor sax moo ko personne Sëñ Fallu daal. ma ne ko damaa bëgg ñu mu ñaanal ma. Mm. ñuy wax ko ko Sëñ Fallu am lu mu ko jox. Euh, ne ko na ko jëfandikoo bi nga ko jëfandikoo nag la tàmbalee nangoo yëg ci avion waaye da daaw daw yëg ci avion waaye li ci yéeme mooy ci avion ah, mi ngi faatoo France ñu jël ko avion indiwale ko ci réew mi muy la ne da ko bañoon def waaye yàlla dafa ko dogal bi faatoo ci lañ ko sóor indiwale <laughs> ah, ku ñu wax ah, Jama Abdou Nasser nekkoon Égypte moom it sëñ bi nga xamee ne mi ngi yebal njaboot gi ñuy dem Makka mm. sëñ mën bu soog sëñ xabaan ak ñeneen sëñ Baara mm. am na kaamil bu bindoon da ko jox eh, da ko jox njaboot gi ñu leen yóbbu yóbbaale ko jox ko Abdou Nasir mm-hmm. bu ko joxee mu am ci te loolu nag gannaaw bi sax yónni waat na ab délégation moom mm-hmm. jamono yooyu dañ la def dañuy wër a réew Afrique Afrique yi mm-hmm. ñi nga xam ne ñu aji woon dimbale ñu la dimbale léegi bi ñëwee ci Sëñ nag moom ñëw na ba agsi xamul ne ma sëñ Fallu maanaam tur weeg dara ji ak ni na ba agsi ci ko sëñ Fallu koy laalaajte ah mu ne ko dañ la ko wax dañ la ko wax danañ nga ko waxee loolu nag dafa war na mën a yaa xalifa jullit ñi ndax li nga li nga mel ak fi mu te teewul li nga yor da nga ko bokk muy li muy li waaye la xorom mooy ba muy dem ne ko damaa bëgg lii boo demee nga yibul ma ko ca waa Égypte nga xam ne ñoo ñoo xeex ak waa waa Palestine waa ngir joxe ndimbal suñu fàllu jox ko dee boo <laughs> nga xam ne kon moom euh, relation yémale ko woon ci biir réew mi seen doom euh, euh, ah, amoon na relation yi ak Sëñ Fallou bi suñu bi suñu fàllu génne àdduna def na euh, seer bu am solo ci moom. kon loolu yëpp day wane ne kon. dafay nekkoon ngir jullit ñi li wax ne maay Sénégal loolu da ko wax waaye da ko jëfee itam da ko jëfee waaw. kon daal loolu mën na cee ñëw lu gën a yaatu kon bu ñëwee ci jikko yi nag. jikko yi moom dafa naa mën na waxtaanu boppam. mën nañ cee tudd lu mel ne muñ. waaw mënoonu muñ la. ndax jafe-jafe yi mu jaar mi ko nettali fii mën ngaa tur tur tur sa doon xoñ ndax métti gu métti waaye nag lépp rek day wane ne kon lu baax moom faaw mu métti bu bu tàmbali méttee rek mujj mën na mën na mën naa mën naa neex waaw waaye teewul nag moom ni eh, mu nekkee woon ci tàmbali noonu la fi noonu la continuer ba ñu fi jógee wax nañ bi nga xamee ne nekk na euh, xalifa dafa woo suñu su ilimaan ne ko day li ñu li ñu gan si nii dama bëgg dama ko bëgg misaal dafa mel ne ñoo xam ne dañoo nekkoon ci ab liggéey bu métti ci ci weeru koor ci digg ci digg bëccëg weeru koor ñuy liggéey di liggéey di liggéey ba euh, ba gis am ndox mu sedd guyu mm-hmm. jamono ji tàggu saan jot.